yegsi naa su ma yegsee ngeen xam ne yegsi dal na ah, bu boobaa rek nuyu leen ku nekk si turam ak santam tey nag dama leen nil ab gan ab gan boo xam ne naanaan bu rëy la si biir Gambia waaye rek ñëw si biir këram fekk ko nag mu toog si ataayaam ñu ngi koo saaf ataaya eh, ñu bàyyi kilifa bi mu naan ataayaam eh, tey suma gan seeni gan mooy Cheikh Omar Faye cheikh Omar fay ki nga xamné nak ah, ab nanan bu reey reey la nekkon nak former ambassadeur fofu nonu si America ah, nekk ki nga xamné nak nag fakala fa kaala allah jamono ji moy kan bi fofu nonu ah, si dekk bi nga xamné nak moy Saudi bu boba rek di ko bu baakha baax si invitation bi nga xamné nak accept nako. bu boba rek xam ngeen cheikh omar sportman bu reey reey la si bir Gambia ak liko ko wër jamono jooju nonu su ko defé moy suma gan ma bëgg xam rek cheikh omar lan la def bir Gambia tay loolu la ñuy waxtaane nuyu naa la fay naa la salaamaaleykum wa rahmatullah soxna si nee nag Fatou Sall waaw fay naa ngi nuyu ñëpp mooy ñi nga xam ne ñooy Gambia Talent Promotion both in and out of the country the whole world maa ngi leen gërëm di leen sargal te di kontaan ne yàlla def na ngeen am xel pour di waxtaana nit ñi ndi media yi fi waxtaan yéen a ngi wër ci àddina bi di ee nit ñi loolu rafet na jërëjëf man tam mhm. xale yi benefit laa ma ñu boppam la la kan mooy Cheikh Omar. Mhm. ñu ngi yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi tey ñu ngi wax different audience. Mhm. Barka démba ñu ngi woon ci gàmmo. di dugg ci pays yàlla bi di xuus ba malawul laa laa waaye léegi a different ball game léegi we are talking to the younger generation am na nag ñoo xam ne xam nañ loolu waaye am na ñu bari ñoo xam ne xamuñ ko am ko am na ñu xale yu bari yoo xam ne ay maarifatu bi laa lañ xam nañ yàlla xam nañ seen borom even though they are very young waaye am na xale yoo xam ne sooy wax dañ ne what are you talking about Gambian Talent Promotion loolu mooy seen bunta man Cheikh Omar was born maa ngi juddu woon ci weer bu ñoo wax januari ci at mu ñoo wax 1960 waaye januari first to tenth ñu ne ban la ci ñu ne paa bi mu ngi ko registré januari tent kon man boobu laa téye mooy ne suma bési juddu ma yaroo dob seeni eh, màggee fa dem Winley School suma baay jàngal ma alxuraan boobu paa yi soo juddoo bay grow up dañ laa jëkk a jàngal alxuraan ci kër gi balaa ngaa start primary one ma dem primary school def primary school def secondary school def high school def yooyu yëpp ba mujjee gi nag ma dem muslim high school may teach foofu physical education yëfi basketball yeeg sports yi ak yooyu ba 1981 ma dem PU camp boobu army bi amagut Gambian army mu ngi start 1984 field force amoon na waaye army time boobu amutoon suñ génération time Sir Dawda Jawara mu ngi start 1984 man foofu laa dem nag ak ñi ma startaloon ndoor ñu dugga indi military carrière dem Sandhurst jógee fa ñëw nekka Yundum camp Yundum camp lañ nekka dem Farafenni dem Kudang camp yi nekka si dëkk bi yëpp ñu wóor ko after ñu yóbbu ñu international training Nigeria Pakistan America fu nekk lañ dugga di def training as good sons of the Gambia maa ngi sant yàlla na yàlla dimbale na ma ci loolu on his sporting career, definitely now to the Olympics, Commonwealth Games, World Championships, African Games, fu nekk laa kon lima ma war a def mooy sant yàlla bi xale yi toogee ne nañ tam am nañ jaar-jaar pour ñu siyaaye ñun tuuti loolu mooy propose bi ñaan mu benefit from it is for the younger generation so that they can prepare themselves to for posterity and know themselves because nit soo xamul sa boppa you are virtually uh, failure in life nit foog nga xam sa boppa kon xanaa ma delloo la loolu. Ah, xam ah, ah, nga baaxee ko maanaam ban famille nga faaxee olof yi dañ dee wax ne lu yëngu rek la ko yëngal la ko ëppa doole. Hmm. soo déggee Cheikh Omar Faye mu ndaw mi toog dafa am fu mu cosaanoo man suma baay mu ngi tudda Alaaji Tijaan Faye. Hmm. suma yaay mu ngi tudda Aja Ramatulaay Tambédou hmm. su ma bàyyi cosaanam mooy Cheikh Omar fay kuñ ma tuddee 74 75 Dobson Street ñooñu Ibrahima fay moo ko jur Ibrahima fay Banjaak fay moo ko jur Banjaak nag maamataar yooyu indi 1800 ñoom ñu ngi originaté a place called Njongoloor in Sénégal maamaati maam yi foofu lañ jógee ci benn buur bu tudda Salmon Faye mhm. ñun suñ famille ñooñu pataanali suma mhm. wàlli maam mhm. ci Salmon Faye la suma waali yaay nag alaaji Ablaye Tambédou yaay mood Lamine Ba imam Maud Lamine Ba yaa Aysatu Tambédou mhm. ak ñoom suma yaay ak Tambédou yu nekk bijilo alaaji Lamine Tambédou alaaji Assane Tambédou that's a big Tambédou family ñii dañ laal ci saraxule ñii dañ laal ci mbokki olof yi waaye ñooro ci dëkki Maba Jaxu foofu seen cosaan la ak ay kër ma jëbeel ba dem ci Medina Baye ñoo ñu ñooy parents si 74 75 Dobson Street But my grandfather was born here in 1889. kooku mooy Omar he was in the legislative council mu Tingurgi, woon Yubari Momo kilifa Banjuli so this is where we come from. macha allah uh, loolu neex naa dégg uh, da ngeen koy wax rek uh, am family Bir Gambia warga nga xam sa mbokka kon nag xam sa ay mbokka neex Omar Abu boobaa mabuka duga bëgg a hamne ak yow Gambia Sumani Gambia dama bëgg a xam rek sa relationship ak hamne nga one former président bi di Yaya Jammeh xam nga Yaya. bu baax xam na li ma nit yombul. Mm-hmm. xam nit. Mm-hmm. <laughs> xam nit yombut de. Hmm. Yaya Jammeh former président Yaya Jammeh xamoonte woon nañ bi ko fekk naa ko Bakau at di gendarmerie. Hmm. waaye xam nga Yaya mage naa ko lu ëpp juróomi at. Hmm. soo duñ woon suma foyandoor wala ku ma daan bi ko at dafa am age difference bu nekk suñ diggante. Oh, waaye man bi ma nekkee ci ami bi moom bokk na 1994. fekk ñu foofu xam nga man 81 laa bokk. 81 moom 94 la fa astafurla moom 84 la fa ñëw. so suñ gap am nañ between 81 ba 84 ci la ñëw dépôt mu start training xam naa ko ni dañoo nuyu wante respect moo dox suma diggante moom du woon suma toogandooral duñ daan àndal opération mënuma koo xam ci biir waaye xam naa ne he was a colleague he work as a military officer ku buggeen liggéey bi la even bi ma amee interview ak Mansour Ndiaye wax naa ko ne du daan sumi uniforme moom guddi sax daf dee sol uniforme bi léeg-léeg dugga dëkk bi hmm. military police arrest boy yi fii dugga moom yàgg na ci façon yooyu loolu mooy liggéeyam so xam naa ko muy liggéey man ñu nekk liggéey ndoor waaye comme ni ma xamee yeneen boys yi doon àndaa ñoom xameewuma ko noonu waaye respect bi ñu ko jox mooy he was the former president of the Republic of the Gambia with because nit ñee ko fa we all due respect ñu jox ko cër bi Gambia 1994. At the Royal uh, Astafurla, not the Royal Military Academy, at the Command and General Staff College mm -hmm. at Fort Leavenworth, mm -hmm. I was the first Gambian officer, Chimbahi Yala, Kunyobu Military School Bobo. Bobo, the first time Gambian Demfa, mm -hmm. the Fort Leavenworth, at the Command and General Staff College, is in Kansas City, Kansas, in the United States of mm-hmm. America. foofu la foofu la coup foofu la ma fekk. Ah, ah, waaw man musuma xam that side of it after xam nga nit dafa am lu tudda in in retrospect yi nga nit moo tax olof yi ne su xam doon jiitu juum te du am man musuma xam that part of him ne mu ngi am éene pour yëfi nguur waaye after la nit ñi wax ne ñi ko xamoon yëpp xam nañ ne. ku yàggaa daal mel ni ku am ambition boobu la. because foog na ne reason yu baree taxoon waaye man area bobu duma ci dugga bi ko xaw ma ci te man du xam wax xamut it was like we were it was a shocker we were overwhelmed we were flabbergasted we mënumaa xam sax adjective we ma ut pour nga am ay junior officers I was a major they were second lieutenant I lieutenant nga jëkk ne dañ jël réew fekk yow yaa ngi bitim réew ma ne kan la ñuy maa door di wax tur yoo xam ne man they were not in the limelight ma xam ne mbir yàlla daal mooy mbir yàlla rek suma booy saabali ñoo yëpp suma booy lañ jàmme mii nante wuñ tol bi ko moom sandam la nekkoon man ma nekk aami waaye yeneen booy yëpp suma booy lañ saabali singaate Haydara yaagut from sandam moom mu ñëw aami dafa lijjanti pour close his papers came through my office with the Nigerian colonel GS pour muy laajte transfer from the gendarme to army xaw ma ndax dafa amoon lu war a xew wala xaw ma waaye gis naa ne moom insisté na daal mu laajte ne dafa bëgg a move from the gendarme pour join ñoom jàmme at the army ñu approval ko ko waaye man after ci laa dem training waaye ñi ma dégg daal ñooñu moy di laas ñi ma doon foog ne su kuu di am Gambie ñoo ñoo koo def waaye ndekkee ñu ne nga ca kaw xel ci suuf one has to be very careful always yàlla daf dee def di impossible moo tax gambien yi ñu war a def ndànka xale yi looloo tax interview bi am pour xale yi jiital seen xel xam ne all that glitters is not gold xam ne dégg coow coow nii rek taxut nga ne matama damana rek nga foog ne noonu la so man loolu laa foog suma xol bi ko yeneen senior officers yi bari nañ fa why you are talking about junior officers ñoo def coup bi why what led to the coup ana Nigerian yi lana xewoon so there are a lot of lapses yoo xam ne war nañoo toog xëy na interview bi du bésam waaye war nañoo toog ñu study what led to the July 22nd coup loolu suñ ko defut we are failing big time and the people in charge am soo ne ñu ngee def loolu because there is security sector reform kilifa yu bari ñu ngee meeting government bi ñu ngi am plans yu to review everything in the country soo that mistakes yi def xale yi buñ ñëwee buñ ko def. that lessons lant is very important waaye du wax bu bari ñun suñ gaa yi wax bi daf dee bari lessons lant ne la ñu educate suñ boppa ñu def ndànka ñu xam fiñ daanoo buñ seet foofu nañ seet fiñ fakkataloo what led to the coup yooyu ma laaj a very a billion dollar question baax na. Ah, like a former uh, Gambian ambassador to the United States of America uh, bu boobaa rek uh, Cheikh Omar ma bëgg a xam lan moo la motivate ba nga liggéey ak Yaya Jammeh because si geste bu ndaw bu ma def déggoon ne ne nekk nga koo xam ne nekkoon nga si limelight bi ku um, def li nga xam ne nag mooy condamn Jammeh ñu gis la nga nga dem ba bii naka CNN def li nga xam ne nag mooy demonstration ñu ñëw toog rek gis la nga liggéey Yaya Jammeh lan moo la motivate si loolu. bot liggéey Jammeh. jàmme yàlla moo ko fa def mm-hmm. man dafa am yu ma góom ku ko góom alhamdulilah génération ñu bees bi ñu bari ñu ko góomut ku nekk respect naa sa opinion mm-hmm. dafa am benn statement bu ma góom mm-hmm. mu ngi ci Quran bi benn suura bu tudda suura Imran verse 26 and 27 yàlla dafa wax ne baada audu billahi mina shaitan rajim qul illahuma malika al mulki tuuti mulka man tashaau wa tanziu lmulka mi man tachaau wa tuizu man tachaau wa tudhillu man tachaau bi yaddika alxayr innaka ala kulli cheyin ba pare mu continuer waaye xëj na jarul ñu egg foofu yëpp yàlla ne nguur maa ko amee maa ko jox ku ma neex maay fal ku ma neex maay folli ku ma neex ci waxtu bu ma neexee ci beneen sentence ñu ne faalul lima yurid ci wasamaa idaatil buruj yàlla mooy saañ ne maay tey loolu yàlla rek a ko mun maa jël nit from nowhere ma def ko président ana man Omar Faye jaambu xeebu bi ne maa ngi against loolu duma ko mus a def at the beginning nag man d'accorduma woon ci coup ñëpp xam ne ñun Amérique bi ma fa nekkee lu tax ma toog fa 12 years su ma d'accordoon bañ jëlee over dañ ma binda pour ma ñëw waaye ñëwuma documents are here to verify that information soo gisee interview yi am pour éduquer xale yi la pour ñu xam seen history ñu xam seen boppa to Gambia foog nit ñi génn si to explain what happened lu ko mooy suñ history duñ mu sa complete su dee ku nekk dafaa daw rek di nëbbu daw lu dul yàlla neen la waxal sa diggante yàlla nga wax dëgga for the benefit of the younger generation loolu moo tax ma accept seen interview bi so jàmmee yàlla moo ko fa isi. 99 point something of the population supported it waaye man I was among a few ñoo xam ne I had my reservations waaw tell um, moo tax nag ma ne la ci loolu laay ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm. bi ma demee ba benn point. Mm-hmm. ma toog yaa guddee kuu bi kañ la july. august september october. suma brother ne ma I don't trust these people. he is a retired officer. I don't think you should go. so man ma ne waaw léegi dëgg la ah ma toog novembre dégg ne booy si nga xam ne ñooy. ji nga interview yi na ko nit ñi déglu bu baax de laan loo xam ne lu bari dañ ko dee dégg ma dégg ne novembre 11 dañ rey ay Gambien ma ne ay Gambien ñu ne ma waa ñu door di man konteel Samejo Sey ñoom Dot Fall ñoom Basiru Baro ñoom EM Cissé But these are the cream of the then damn army. I'm sorry. These are the cream of the first battalion of the Gambian army. So rey ñooñu yaa ngi rey army bi. So that got me real pissed off. Mm -hmm. I'm going to start using that word of Jensen level. Mm -hmm. I got real mad and pissed off. Mm -hmm. And then that pushed me to be part of the Keba Jalos or the Amadou laws at Ndongo. You them put demonstrating this is wrong. This is how that demonstration came. It was not a political rhetoric. It touched my heart. Since then, Naglador, the visit, Motamailen Bugumaku, looloo tax Jerry Rollins advice Len, ne be careful miri doole dafa garaaw doole nga do di rey nit I will never be part of that even my own brother Imam Muntaha su demoon ci line boobu muy lor nit I will be against him much moo koo xam la I supported Jammeh for the interest of the Gambia I'm an officer well trained taxpayers yi xam nga ñaata xaalis lañ fay ci man they paid for me on the 9th of March 1984 to force travel to the United Kingdom pour def training eighty-four Pakistan Nigeria macha allah Liberia peacekeeping Sénégal ak Senegalese army bi dañ yàgga spend on people like us so ñun is our duty suñ gisee loo xam ne lu yaaxa dëkk bi la nga fàtte sa interest nga wax dëgg bi so ñu toppa jàmme pour dimbale ko waaye Gambian yi ñëw votel ko nag am not gonna be against the will of the Gambian people ma ne gars yi ah yéen coow li bari waaye kii léegi Gambia Omar soo gisee jamono jooju mu jël yaaya ofaam dafa xam ne euh, moom ngee dem mag euh, Cheikh Omar xam na ne euh, Amérique fu mu nii di gis ne moom loolu aadama ku nekk da ko war a jox cëram moom loolu la gis falilahi alhamdu man tam am na leneen lu ma gis man dama gis ne doomi réew yi Gambien bu baax laa. I was a security supervisor boys in nekkoon Atlanta they used to see me in my uniform and suma moto ak my cell phone yooyu yu company compagnie bi jox man dama I was not struggling in America and also I was a supervisor for bias engineering and utility quest Nyata nit laa digal liggéey foofu suma mag ma bokkal ndee baay ba ko ci bi after 15 years pente mu ngee liggéey He's in Louisville Kentucky ñoom Bati Smart ñoom Ahmed Dentin ñoom ñoom ñoom uh, Bati boy. so man company bi ma doon liggéeyal supervisor la fa because bossy si compagnie bi dafa xam suma background te moom la woon man I was a major so bim mu suma kayit muwa mu wax gars ne careful Ki ba pare dama ko daan advice on how to run the company so man nekkuma woon ne dama doon mag waaye itam dëgg la maa I was comfortable I had jobs I live with a big family mashallah. allah ba pare dama am jàmmaa nit ñi I was getting people into jobs Haramo oh, ma yox la liste bi ma daan yónnee Gambia forty fifty thousand dollars yi di ko séddale suma mbokk yi liste baa fi suma sister Adja Ndeye Binta Faye daan ku na def loolu kii la wax ne nga laaj ma loolu moom laaj na ma ko waaye ma ne ko du la tontu yow tam duma la tontu loolu is my personal emolument uh-huh. it gets in the government mm-hmm. you want to know it mm-hmm. na Gambien si yëpp xam youth si dafa am loo xam ne public record la mm-hmm. loo bëgg a xam man ma bañ la koo wax demal ci public record yi waaye loo xam ne personal emolument si nit la in the civilized world kenn du toog di dugga ci loolu it's like a medical record man du oh I've been paid twenty thousand dollars Gambia dëkk bu ndaw la dëkk bu poo la rus na ak problème yi am nañ bàyyi ñaan yàlla nguur gi solf yooyu yëpp rek waaye du you know suma ma suma colleagues, su ma collègue suñ ko déggee Then you know what is that what they've been paying an ambassador from Gambia Why we did it also for our country Why in that case it could be more it could be less but it be something loo xam ne ñu ngi woon maslaha di liggéeyal réew mi waaye question yi nga ma laaj very important coming back to America jàmmee laa mu def nii jox ma xaalis mu ne ma boy you wanna go home we don't have a problem with you we don't have a problem with you you've been a fine mu ngee dunda teddu xëy na dina dégg suma wax bi so naa leen nga ne New York in a hotel that was all over the wool the whole world knew xëy na boobu danga doon gën a yong rek yow <laughs> but the whole world knew dafa ñëwoon United Nations mm-hmm. ñu arañal ma pour ma dem mit ko ma war koo mit thirty minutes may leen lu kilifa yi wax rek ni nga maa gis nii man yëfi autorité du ma ko caaxaani ñu ne ma thirty minutes may leen bismillah I end up seeing him for seven hours mooy dee bi Gambia winee Brazil in Peru boobu Gambia dañ demoon under 17 that was the day we had lunch together we had dinner together we had everything waaye jàmme na la wax ne kii musuma koo gis mu dugga ci loo xam ne yëf yi njuuj njaaj la war a fi tappale la man xamee wuñ ma loolu. man suma liggéey laa am I was a professional officer dama bëggoon a dimbale Gambia nit laa nag mun naa am am na jaar yu ma xam ne yéen ñu ne loolu loolu ku nekk sa opinion waaye man suma diggante yàlla I knew war a did am naa right fu ma bëgg a ma bokka fa dama am suma interest dama am suma family dama am value man du ma dokk ci loo xam ne dafaa yaaxa réewi Gambia soo jàmmee ooma ma meeting a moom mun jox ma paas ba pare sampa ma jox ma liggéey ba def ma ministre def ma amba lu nekk la ma def because xam na ne man duma daw di caaxaan so su kon loolu la ni ko noonu li ma am ci moom duma ko am. so si seen mit boobu ngeen discuss dama mu laa bëgg a jox place. mu ne ma non boobu kañ fi place sax waxuñ ko. mu ne ma sa yaay dafa gaañu dégg naa ko doo dellu Gambia nga dem jaale sa yaay pare nga dellu dëkk ba léegi wécceeku na. da nga ragaloon. du ne yëfi ragal waaye political dama amoon political asylum ci America. te jóg rek dem Gambia kon mu kon kon ma ne suma yàlla na fa sanity dama am green card dem so I was doing due process ba pare ma sóobaale ne yàlla moo amee suma affaire doomu aadama mënut a amee affaire nit ku nekk yàlla sa affaire daf ma gis nit ku baax la mu ma jox ma ticket yëpp ne ma demal Gambia lan ci lañ ñu ne ma lan nga bëgga may leen rus naa pour wax loolu duma comme ça wax xam nga wax dafa jot li yépp suma ko wax pour xale yi jàng wax dafa jot te dañuy wax te ñu ñuy wax mooy faat sàmba ak gaar hmm. ci seen office lañ jidee hmm. mu ne ma ñu ne lan nga bëgga secteur général bi fa nekkoon di ma ko wax mu ngee dunda jàmmee ngee dunda hmm. former président ma may leen man rus naa ñëw ba Gambia suba dëkki maam di fa laaj di fi laajte place next day bi ñu ooyaat ma ne ma président bi ne yow lan nga bëgg ma ne leen li ma leen waxoon moom xam na ma xam na Gambia moom na seet foo xam ne mun naa di man du ma xëccoo dara bi koy man yooyu du ma ko def suma compétence laay depend yàlla dimbale ma ma ñaan def li ma war a def lu ma war a am ma am ko waaye du ma daw di li fi buggee yooyu yal ma ci yàlla mu sot te ñi ma jege yëpp xam nañ loolu ci man after mu ne maa we will be made a director of press and public relations may leen falilahi alhamdu ma wax suma mbokk yi ñu ne ma ah liggéeyalal sa réew after six months ñu ne minister of youth sports but pare tegal religious affairs mm-hmm. ma but ba benn point ñu deputy head of mission Mauritania ma yoon bismillah seven years benn point ñu ne ma charge d'affaires America, ambassador ma yoon bismillah as long as one night must naa leen a wax ne soo leen ma yónni su leen neexee Afghanistan just give me an air ticket and what you want me to do I move Sabali was secretary general then and ñoom Maam so you na sooy ma wax loo you dinaa you ask me whatever you want lu ma mun ma tontu la. bu boobaa you ñu dugg si fi stop uh, muy ambassade bi nga xam ne moom nga wax nekkoon ambassade uh, embassy bi nekk DC uh, ma bëggoon na naka woon sa time Gambia's relationship ak Amérique. Uh, it was at a very bad level. The Gambia's relationship with the United States. And the youth should listen. This is a, this is a political science class right here. Yes. 101 right there. Gambian Talents TV, you guys. And that's why I appreciate Gambian Talent. Talent. We have to support our own. Mm-hmm. I'm so proud to have Gambians of own Gambians. Legi nañ make sure you dimbali in all sectors. Nañ lu nekk na ci Gambian yi ke fu ñëw na make soo ne sooy liggéey tam na gàmbeen yi nekk sa kanam dëkk yëpp loolu la ñoo def waaye as I said dama dee avoid pour get emotional because dereti fayen bi su ñëwee ci dëgg rek ah waaye comme que ñu ngi ci interview xaaral ma def ndànka juufeen yi bëgguma ñu ñëw sumi ma te gisuma cere gisaguma dara li ma laa mooy the relationship was at a very low level di yow nga ne waxtaan la kon nañ waxtaan nit ku njaflaf nga nit koo xam ñu war a gis ne. Eh, relationship bi daal ah, rataxut. dëgg la. Mm-hmm. foreign policy dafa important na ko xale yi xam. Mm-hmm. foreign policy ak national security policy. they are very very important Gambian dafa war a nekk di best country in loolu la ma bëgg xale yëpp xam ko because it was above my level man I was just ambassador. It was at the level of the presidency and the White House. So man, when elephants fight, they're gonna ñay Nyai, funyai di joxe eh, de melentaan la cross te so I had to stay away from that level Why? man my duty as ambassador pour ma tuur ndox bu so that's what I was doing behind the scenes well I've always oh, you know former president moom tam dafa am stand dafa am yum gom American yi dafa am luñ gom mais ku nekk foog nga jox ko cëram an d'accord naa moom ci area boobu waaye dafa am noo ko defee Samba mu ne fii doo ne takkal leen ma lankaar I think I mean he they respected him a lot because at that oh man lately yow waaye maa am na time boo xam ne ñu dañ ko jox cër because dañ gis ne kii pare na pour liggéey waaye bi yeneen di ci bokka rek comme ñuy wax ne kii dee na wala deret tuuru na wala yooyu fo naa foofu la the, the bilateral relations mu door Why? Gambia and America has always been at a very good relationship yaa ngi président bi musa in 1943 mm-hmm. the first president bu land ba before mu Morocco before ñu form United Nations so Gambia dafa yàgga am a relationship this also was the emergency landing site for the NASA shuttle ñu bari ko woon Nasa bisu na one from Florida or anywhere. So I'm a problem ready for our land Gambia. Anti-terrorists living Vietnam, then I'm on the relationship like Americans. We had an agreement to fight terrorism. Training bubari den koyo infantry officers basic course, nyom sana sabali, causing them, Anyom nyom Edward Singate. Ak yenen boys, nyom baji, CDS, former key, um, small boy bi, ki babu kar baji, <laughs> twice. Teneko lan def ku gënoon a thank you there is a lady called Linda Thomas Greenfield assistant secretary of state for Africa kooku liggéey naa moom lu bari kooku tey mun naa taxaw ne la ki ki def na lu bari loo xam ne dinañ ko wax nag moo daf ma daan xool mu ne ma I don't like your job. ma ko lu xew mu ne ma I don't want your job mu ne ma you have a very difficult job because maa ngi doon jéem a dox diggante south ak north xam nga Babili Mansa mu ngi boor bi Kaana yaa nga boor you know waaye nag we were trying to tell them to look at something very important I want everybody to listen think about the population of the Gambia don't center everything on one person president is one man what about the couple of million Gambians so we started to discuss so a lot of things improved foofu la ñoo doore waaye am na ndox yu sedda yoo xam ne fii du place am pour wax ko xëy na su ma toogee yéen a kilifa yi waxi saal dafa am wax cabinet am dëkk bu nekk dafa am ay secret mun naa leen a wax loo xam ne xel dina ko dégg fii rek mais dina am détail yoo xam ne loolu foog ñu am commission boo xam ne dañoo toog a kilifa yi at di war room or at operations room kilifa yi toog ñu wax leen li xewoon. so that we learn from dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la loo gis dafa am waxtu. Mm-hmm. waaw loo gis dafa am waxtu te dafa am. loo xam ne foofu nga mun a m man Gambian la taxpayers yi dañ leen oo pour wax leen waaye am na loo xam ne Samba mun a fay takkal leen ma lankaar. Mhm. man bi ma demee DC pour the interest of youth si embassy bi mu ngi ubbi 79 kilifa gu baax El Hadj Ousmane moo tax Gambian yi one thing itam buñ faate di delloo njukkal kilifa yi nga xam they did a lot for the country mm-hmm. and they seem to forget a lot of them you'd see nañ jël loolu ñu note loolu let us remember our people that did a lot mm-hmm. for the country mm-hmm. bari nañ de góor ak jigéen waaye naa ci tudda kenn mooy ki ubbi woon embassy bi comme que embassy kama ma laaj Ousmane Alaaji Ousmane Sall he is like a doyen of Gambian diplomacy kooku embassy yu bari moko ubi. kilifa gu mag la even Saudi Arabia yi ngaa dégg nii yëpp yu ci bari ñoom ñooy woon di architectes ak yeneen embassy yi du foofu rek mm-hmm. waaye retire na léegi ku yëngatu la ci Gambia ku bugg a Gambia alelam gu bari def na ko ci réew mi léegi mu ngi Washington mm-hmm. ñoom ba nine ba 2014 2015 mm-hmm. from 79 ba 2015 yàlla dimbali ma ma nekk di first person pour Gambia jënda embassy pour moom ko waaye ñoom ñëpp buggoon nañ ko oh, is that news to xamoon nga a nekk news parce que xam naa am na ñuy seetaan euh, ñi nga xam ne euh, ab ndaw leen ba tey ñi nga euh, na Amérique time boobu noonu yu bari ñun ko daan dégg si li nga xam ne moo fa xapoon. soo góor ak jigéen they did a lot they wanted even to bëggoon nañoo jëndal lii waaye yàlla dogalu ko because dafa involve lot of finances and a lot of decision. at the highest level with the executive loolu décision yi présidence bi la man dama leen dajaleel kayit bi ak Gambian bu baax bu tudda Mood Camara kooku yëfi jaay kër la dee def mhm. suma classmate la woon mu ne ma yàgg naa toppa ambassadeur yu bëri pour lii because waaye yàlla yow sa time la ko isi mhm. because li ci bokk li ci involve dafa métti so maybe people may not want to go all that route sleepless nights you have to have lawyers you have to do things have to ne average Gambian bu doing xam ne behind the scene pour ñu alaaw la nga jënd a property at 16th street in the heart of Washington DC 5630 15th street foofu mooy suñu embassy soo demee di nga fa fekk flag mu ngee naaw Gambia ñoo moom foofu. Mhm. so maa ngi sant yàlla ne af su ma achieve dara Amérique su ma fa achieve dara sax benn achievement bi su ma ko dee sax mun naa tàlli because su suma bugga suma dëkka loolu rek man doy na ma waxatuma laa yeneen yoo xam ne su ma ko bëggee wax fii dañoo ne saabu du fóot boppam xaaral ma bàyyi nit ñi ñoom nañ waxal seen bopp. waaw pour hmm. ndox bu sedda. diggante jaami yàlla yi. as an ambassador di nekk eh, bilateral relation siñ amat réew mi ak yeneen réew yi. ñuy leen a convince pour ñu invest ci réew mi wax leen ne Gambia ay nit ñu baax lañ de nit ñoo xam ne nit yi jàmm lañ ñemeñ loo leen pour ñu dugga si li ma def ci réew mi li ma fi def dem naa yàlla def ma ma saaf suma country in uniform for over a decade and a half my one the first person ku yóbbu a peacekeeping mission to Liberia during the ECOWAS economic loolu itam I think it's history Silva jubilee bi bi affaire yëpp debee ba daja man leen jox pour ma jël parade bi mooy bi Gambia di am 25 years of independence boobu 19 xaw ma na boobu xëy na judoogu leen yéen some of you. Mm-hmm. Silver Jubilee. Sir Dawda invite Princess Anne mu invite Baba Gida mu invite George Bush Junior waaye boobu gouverneur la woon nekkaagutoon président ak mag fi July 22nd ñu def fa parade boo xam ne réew mi yëpp dañ kontaan bi ko bi biñ ko starté ba mu am benn fault amu ci ba bi ñu paree Sir Dawda daf ma oyaat ma ñëw mu jox ma loxo. waaye soldaar bu añaanut di nga xam ne kii ci ami suñ ne yëfi pareet ak yëfi toppatoo kenn du ko ci dóor maa loolu may yàlla la dama ko wax pour sante yàlla waxuma ko sax pour waaye wa maa bi ni'mati rabbika fa haddis alxuraan dafa wax ne dee leen a wax seen xiiwali borom su la yàlla defalee taraanga sañ nga wax ne yàlla defal na ma taraanga yal nañu yàlla lafal cat te yal yàlla dimbale Gambia du man rek a lot of people have similar records even records better than myself but they need to come out and the youths need to know who did what so that ngeen put ko in archives ngeen denca ko to study from it for posterity uh, waaw ah, su ma gan ah, seen i mooy Cheikh Omar comme ni ma leen ko waxee rek lu mu fi def la ñu waxtaane ah, lépp loo xam ne rek laxasu na si suuf bi dinañ ko nar a setal lépp loo xam ne nag si ndox bi lu ñuul la dinañ ko nar a génnee bu boobaa rek Cheikh Omar ma bëgg a xam rek ki nga xam ne mooy woon former président di Yaya Jammeh ñu bëri bëri ñu ne yow si sa jamono doo daan jox Yaya Jammeh di clear picture of America maanaam danga dee li nga xam ne ne America everything is fine di ko information yoo xam ne nga baalal ma rek si seen ay kaddu maanaam di ko jox fake news ak ñoom seen. Euh, loolu lu am la ndax lu amul. Mm-hmm. bul am benn ñaari xel. Mm-hmm. pour laaj ma li nga fiil ma wax la ko. Mm-hmm. ah janax de bari pax ah. gis ne waxoon naa la sànqale la nit ku nekk danga am entitled sa opinion. waaye bul jaxase opinion sa facts. man suma caractère ak suma loyalty to Gambia. passé na may jox président Jammeh former président ne ko everything is okay dama bëgg nit ñi déglu ma. Mm-hmm. bu leer du ma du ma façon nit kooku. te président Jammeh xam na loolu man musuma koo jox benn picture ne ko may in fact the good thing mooy he is alive lu ma wax lu nekku dëgg wala ñi ko jege. ñi ko jege xam nañ nañ la wax ne sa waa ji li mu wax yëpp dëgg la maa ngi laa yëgal ne wallahi billahi du ma mus a jox former président Jammeh or anybody for that matter di picture loo xam ne correct mm-hmm. man suma deret nangu loolu. moom nag ma wax la dara la ma fa xam moom moo ma fa gën a xam man du ma mën a jox wrong picture. di presi di former president used to know more than I do as former ambassador. te ma jox la breaking news boobu. Ah. jàmme la fa xam man xaw ma xaaf bi. léeg-léeg mu wax ma yoo xam ne foofu in my backyard fekk man xaw ma ko an I was ambassador. nga ne yàlla moo ko may di security network. yàlla moo ko may yàlla ku nekk am na lum la may. waxoon naa la at the beginning ne loolu areaam la ku involve woon ci security la li maa wax nii waxuma ko li angale di wax personal aggrandizement wala self praise man passé naa loolu luñ ma cover doy na sax macha allah damaa wax lii fo the interest of xale yi ak also for the records of the Gambia because lii dañ ko war a denca di president used to know more than I do the former president used to know more than I do in America because wax na ma fa wax yoo xam ne du ma ko wax fii yoo xam ne is in my man xaw ma loolu <laughs> so air dama ko respect woon ci loolu waaye du ma ko mu sax wax ne everything is okay ma ne la loolu du ma ko def man du ma nit kooku ko moom xam na lu fa xew so su ma ko xeloo kon dafa mel ni maa koo fenal te moom lu mu la laaj laaj na keneen hello lu mu la laaj laaj na keneen um. soo sooy doxala moom ah satellite yàlla bi ngaa biim not doom aadama man léegi ci lépp ma wax la for your information mm-hmm. man satellite yàlla bi boobu laa dee xalaat mm-hmm. inna rabbaka labil mirsaad yàlla mu ne maa ngi janoo ak lépp soo mu ngi amee strate bu mag soo man duma ma impress doomu aadama di la wax fen loolu moom dina la wax ne kii musut maa wax fen daf leen daan wax ne def leen ni Omar Faye di def ngeen liggéey. bi rek mu nekk loo xam ne daf ñuy wane waa Dobson la ah, sant yàlla bu baax a baax a baax <laughs> ah, kon nag bu kay waasaabe waa na ah, kon nag bu boobaa rek ma bëgg a xam yaaya yow Cheikh Omar ndax mos nga toog ñu gis loo xam ne jàmme def na ko lu wrong nga ne ko hey hello gentleman or Mr. President whatever name you call him and tell him hey li nga def is wrong oh your excellency li nga def is wrong dafa am yoo xam ne kilifa doo jama moom loolu gis nga nit waxin dafa am xale yi nañ jànga waxin nit mun nga koo wax ne yow Mr President li nga def dafa rong te doo ñëw ne ko Mr President li nga def dafa rong hmm. yéen ay yabaate yonente yàlla Moussa bi moo dem ci na hmm. yàlla daf ko ne ko soo demee nga wax a moom ndànka hmm. saasaay la waaye kilifa la itam soo jàngee ci that school of thought kilifa doo ko disrespect xaleel sax doo ko disrespect naa ko ne ko naa ko ne ko yow ex of ko dañoo communiquer ko ne excellency lii ak lii ak lii boo xew ñun suñu amoon li ñu gënal or the best thing for the country mooy lii ak lii ah yoo xamuloo gars yi sax dañ lii ma ne ko waaw waaye góor you know lii ak lii so foofu rek laay am <laughs> ñu ne ñu si jamono démocratie. démocratie la amul loo gis very informal. a wax tey si yeneen moom laa faa répit. Mm-hmm. te soo demee State House Mauritanie lu ñu laa njëkk a jox. ataaya ah, soo demee Saudi itam lu ñu laa njëkk a jox. Mm. soo leen toogee balaa wax ji di am. ñoom tam am nañ seen oon fa suñu ataaya kon naanal ataaya bi yàq moom mbokk yi ba léegi rek di leen jaajëfal bu baax a baax si toppa bi ngeen a toppa Gambian Talents TV ah, di leen rek suma gan seen i gan ah, moo nekk Cheikh ah, Omar Faye bu boobaa rek di dina waxtaane li nga xam ne nag moo limbi réew mi li nga xam ne moom la la xasoo woon ak jàmme li nga xam ne nag mooy jamono ji li nga xam ne moom la moo dem yooyu noonu yëpp dinañ ko waxtaane bu boobaa rek Cheikh nga ñëw si waxtaan bi mun nga koo bàyyi su ko defee rek ñu gën a waxtaan ak moom gis ngeen ngeen ko ñëpp ay bëgg nga ko daan waxee. mooy. one two three ah man de foog naa ne di best thing ñu def lii ak lii. daf la daan déggal sa ay kàddu. well xam naa ne su ma waxee moom dina understand ma wax waaye former president nit ku nekk he has his own beliefs. moom mooy woon di chief executive Gambian yi moom lañ sànniloon so moom moom amoon di prerogative as a final man I was an employee serving the Gambia under his leadership Why not interest yi Gambia overrides all interest moo Bimbi bi mbiri impasse bi jotee ma wax ko again for the last time respectfully ne ko as the force ambassador pour respectfully in Washington ma fate, suma yëpp ak suma njaboot ak yëpp ma toon ne ko man fokk naa ne li nga def bari na juumte yi am na waaye yi tam am man su ma doon you stick to eh, Gambian yi change nañ seen mind ngeen jox waxin dafa am. di dinañ ñëw si baax na bismillah pour wan rek ne la suma track is very clear du ma daw di topa ci gannaaw kenn di la wax loo xam ne amut loolu is not me suma waajur yarawuñ ma noonu te du ma ko def su neexee yàlla. ki nga xam ne mooy jaame li ta bi nga xam ne nag moo nekkoon. Eh, balaa muy génn si euh, Gambia bi euh, di nga gis ne jàmme bi li foon na ne euh, distraction bu bari bi nga xam ne moo doon xew fii si biir Gambia rawatina nag moom foogoon na ne America ak ñi nga xam ne ñooy Angleterre ñoom ñoo destabilise government am maanaam dañ ko daan undermine bu baax a baax a baax ki nga xam ne moo nekk in 20 in 2014 Njaga Jaañ la Jaañ Ñas Jaajal Ñas Alaaji Baro ak ñeneen ak ñeneen attempted coup waaw an attempted coup so ñu bëgg a xam rek naka la nguri America gisee ya, woon loolu the American government disagreed with it and the people were taken before the law and they were tried yeah but Jammeh dafa beliefoon ne eh, American government ñoo senoon nii so I said ku nekk mun ngaa am sa beliefs but facts are facts mm-hmm. moom mun naa gom loolu that doesn't make make it mu fact mm-hmm. te xëy na am na raison su tax ma bëgg bi ko ku ndóbin rey sa maam. soo gisee lu ñëw daw. so man maa ngi woon ci biti ñëw yëpp xam naa li xew yëpp ci biir. Mhm. so moom laa la wax ne dina am loo xam ne ni ñi nañ ko xam fii dina am yoo xam ne ci yeneen programme la waaye dina am yoo xam ne yooyu dama koo bàyyi ci the level of ñoom su jotee ñoom ñooy wax yooyu waaye man naa share for the interest of the loolu la gëmoon container bi ñëw na def nañ ñu war a def wax nañoo gars yi am na suspicion am. Why America didn't ne a new def loolu di ko dañ am loo boo xam ne depuis indi eighteen Dangam, who xam friendly America, la duñ la bàyyi nga destabilize a friendly country it's called the Patriotic Act mm-hmm. Bobo is an act of congress for Hamne they dañ ko nangu américain yépp seen loi bi d'accord ci ne destabilize a friendly country mm-hmm. and they consider Gambia as a friendly country mm-hmm. because Gambia dafa in in relationship to anti-terrorism fighting at UU. So they took those people, some of them in Madison, I think some of them Wisconsin, or some other courts, New Trident. I followed all the proceedings. I'm not for this technology. Mm -hmm. I followed all the proceedings online. Why man sago maken ken sago maketen maken. I was just doing my job as an ambassador, and it was the the free world. I contacted the judicial authorities ñu jox ma suma xàq Gambian ambassador wax ma lii xew yépp ak fa xewee te su xewee ba pare ñu ma kayit yi dama lii moo fi xew dama ci boole coow maa ngi ko soog a wax léegi soo yii fii du coow gis nga def sa liggéey for the interest of the country. so bu Jammeh ñu atemoon ko ku ko loolu nekkoon na loo xam ne was like fan la ñuy uh, because um, ñii def nañ loo xam ne you know loolu uh, góor jàmbaar rek koy def seen life génne seen ay family seetuñ dara ku save Gambia. jàmm comme li ma am na yoo xam ne su ko soxlut duma ko laaj sax parce ko am na yu bari xam na ko am telling you moom su ma dégg dina xam lu ma ñu ma xam na lu bari waaye man xaw ma ni coup bi amee li nit ñi doon riit rek laay riit liñ def ba train nit yi yóbbu leen jënda bagage it was public knowledge maa wa leen wax ne youth si fii itam nañ xam ne am ngeen access to the government records Yo xam ne public record la so legi America am na foo xam ne nga faa dem nga type ci in sa computer mu wax la li fa xew court proceeding bi George bi li wax li so we followed like everybody i am not sure I wouldn't be surprised ne mom tam momo ak mi yi ñu ngi doon follow so musuñ koo discuss because it was on the table maybe the American ambassador bi nekkoon brief na ko man tam maa ngi am suma briefings moom wall bi technology léegi ñëpp a ngi xam what's going on am na foo xam ne soo fa demee amut nëbbu di nga fa gis yu bari waaye if it is restricted li ami di wax restricted or highly confidential loolu du nekk waxi biti loolu gars yi dañoo dem ci seen office yi jaame itam oote security council meeting ñoom yi neen ñu waxtaan ko foofu. Eh, nekkuloo feel hey happen you know position you know are you not scared. Eh, remember every position. I was a permanent resident in America So many hon, maneka, American citizen ma fàtte Gambia so many yooyu du suma affair. I was comfortable in the United States. maa you know as I said man dañ company dañ ma jox motor, jox ma téléphone jox ma carte ma buggee essence sama dem dugal. waaye ñu ma dëkkaloon yëpp xam nañ loolu it was no secret so yëf yi pour ne coup d'état am ñi ko coup man maa leen jiitu ci yëf am yi man eighty one laa dugal li ñoo def yëpp xam naa ko te dan dama ci sori woon so lu maa tiit amut tiit xamoon naa di capacity of Gambia ñoom itam seen capacity xam naa ko so dinaa xam ndax li ñoo def dina mun a am wala du mun a am. so du ma mun a wax loolu nag because yow lu yàlla rek a ko munoon a wax. Mm. loolu su ma because kenn xamut su yàlla ne woon innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ñu ngi ni ko na ñoom ñooy amee mbir yi fi mu nekk waaye yàlla dogalu ko. yow comme noo ko waxee nga ne yaa leen ëpp expérience. Oh, waxuma ne maa leen ëpp expérience dama leen ne maa leen jiitu. waaw yaa leen jiitu so ok non xam nga wax gële nit mën na koo déglu rek ne ah mu ne lii. waaw ok yow yaa leen uh, jiitu si. maa leen uh, jiitu fuuf ci liggéey. so feel nga ne yow at that time ñoom suñu la consult woon yow. ndax dinaa ci ndax naa ci waaye man duma ma bokk ci xaru. munoon na am ma bokk ci su ma gisoon ne dañ war a change Gambia and they have the capacity su dee interest Gambia ma jiital naa ci dugga mais su ma xamee ne ñii médiocrité yi wala leneen moo ci dugga man du ma tonal ñun bi ñoo yëngatu ñooñu fekk mosu ñoo xalaat pour ñëw Amérique sax soo ñoom li ñoo li ñoo def nii ñun xam nañ ci lu bari te looy def da ngaa soo nga def ko professionnellement yëfi bakkan bu yëfi caaxaan ba pare yëf yi réew itam man du ma dugga ci dara luy ral pour rey ganaar Gambia so suñ ma kontaagoon xam nga du mën a wax risque waaye su doon taal boobu la xëy na yàlla na ma mun a jox idea pour ma wax ak ñoom li ma war a xamoon. waaye léegi hypothétically dina difficult pour ma ne ni ko doon man lii laay def. waaw but but but ndax yow open sa door bi because um, according to suñu source ah, ñu bari ñu ne yow sa jamono um, embassy bi da nga daan call line si mu dox kenn la uyoo. bigamist MSC. Wow. According to, you know, what people say. Okay. So you hear Then dan kolbam dog. Wa danga kolbam dog, you know, embassy bi nekutoon at the service of the people. Ma Gambian embassy bi mm-hmm. uh, ñu ngi fa woon rek ku seen ay boppa ah, ah, nekkuñ you know, Gambians yi nga xam ne ñoo nekk America. Ah, so ma bëgg a xam rek lay wax ñooñu. Loolu du am. Loolu du am. It is misrepresentation. It's, in, it's unfounded. It's untrue. Ji nga nit kuba. baax. Gor. da war a wax dëgga mu neex mu naxari moo tax suma benn maire loolu la ma wax ne ma wax ko suma doom yi mu ne ma you can lose money you lose nothing you lose health you lose something but when you lose character you lose everything yal na si yàlla musal man dama try pour nekk a person of character suñu waajur yi noonu leen ñu yaree te du man keena ñi yaroo kilifa yi yëpp noonu leen yaree xale yi man duma dem di wax lu amut waaye gis naa ne nit ñi léegi nag loolu dañ ko def naan ndox di wax lo xam amul lolou nit ku baax da ko wara a rus wala bala nga wax nga xam li nga wax li ma moy man when I took over that embassy te so pare programme bi maybe honest Gambians ñu nek America nañ la ne hey ki bi mu ñëwee fi yalla dafa def 360 man kenn ñama ñëw ton nga ring telephone ring ben yon te jëluloko ko before they la daf daan help because I was part of the community Gambian community in the diaspora dama dan call embassy bi wa daf dan difficult daf dan difficult Purunga amnit in those days. Some of these people also, I don't blame some of them. They were really in very hostile territory. ñuy ñëw the Daji embassy di Duga, wala New def dara jaame so a lot of people were very scared man dama Ludut ñëw ne lu dut I'm a Gambian ma engage ñi ma high school Senegal, since in those days bima maa daw 100 meter champion fi. ay ati at ñi ma xam yëpp ham ne kii xam nañ ko li du dëgga because we know him my interaga ñoom ñuy toog di ataya new ñuy dox di ñëw ci embassy bi luñ soxla téléphone my dem di drobal nit ñi seen passeport yi ci man dama def yoo xam ne day unprecedented suma driver bi sax daf daa waaru daf maa xool ci seetu bi because maa ngi def yoo xam du suma liggéey waaye ma ko Gambia is one family we have to help each other so man suma time lulu laaj ko ku neex including Pa Ousmane Diouf including boy si Duga yi including ku dëkk America. waaw ñu ñëw si Duga. <laughs> nee leen Omar Faye ndax daf daan tëj oo daf daan open. fi nga wax ko mooy xasal delloo fa sa loxo ah, oncle ah, kon nag yéen ko dégg. Democratic Union of Gambian Activists. these are my sisters and brothers. waaw euh, ba léegi rek euh, interesting enough euh, li nga wax am na solo ki nga xam ne mooy coach Pa a Jaw ak ñeneen ak ñeneen waaw dañ daan ñëw si embassy bi waaye kii suñu mag la de Ousseynou Mbengue kooku waaw waaw moom am nañ ko moom Mbaye Sarr waaw Mbaye moom mu ngi woon on mhm. ñoom soxna And I also need these are our families, these are our brothers and sisters. Ku nekk dafa amoon lu mu góom rek ak ni we are all saying the same thing actually. yes so moom ñëwoon na ñoom daanaka ñëwoon nañ ci seen office before foofu noonu si embassy bi ah, di definitely li nga xam demonstration. so maa ngi laa dimbale a question. waaw wax ñu wax ñu tuuti si loolu. maa ngi laa lead into yeah, yeah. yaa ngi wax su ko defee rek ñu dem. gaa ñëwoon nañ waaye nag after ma wax leen ñu ñëw waxtaan pour ñu ñëw toog waxtaan. ñu seet lan lañ lan la tax ñu mer ak lan lañ war não def pour opinião ñoom tam seen que ci gétt gi lañ bokk. war te war nañu ku bokk ci gétt gi. naan si meew bi soo a déglu taxpayers te they sons and daughters of the Gambia di gën a yàgg nañ ca réew ma. Mm-hmm. waaye seen te seen kilifa yooyu def nañ fi lu bari ñi understand. ñoom fa a mi fa Kébis Menga ñoom Alaaji Menga ñooñu ñooy waajur yi ñoom yéen Ousseynou Menga ñoom oncle Mbaye Thiaw ñooñu soo waxee ñoom Mbaye Sall ñooñu seen oncle yi yaa sophistiqué waa Afdaay la Hegan Orange Street. waaw ba léegi rek daguma la. Euh, comme ma ko waxee. Euh, xam ñoom Kouj Pa xam na ñoo no I was actually surprised whether it is said being scared xam nga nit ku nekk di nga dee scared waaye li ñu jàngal in the army there is a level of ngay ragal ak how to manage it doomu aadama bu nekk daf dee scared. weda xam nga ko loo ko o nangu nga ko o nambuloo ko waaye man suma level of experience ci security li ma doon bañ mooy nit gaañu fa because ba la ñëw dañ ñu war a inform because the state department war na ñoo xam ne demonstration dafa war a am that's American law ñoom dañ dee apply duñ jóg rek ñëw de dañ dee inform gaay ne leen dañ bugg a def li ñooñu itam dañ ñu dee contact mm-hmm. waaye soo ma bindutee na yaa ngi ñëw fekk maa ngi am meetings already mm-hmm. so yaa ngi break protocol mm-hmm. so they broke protocol waaye I still welcome them What I could have done is I'm not could on Buga call 911, suma staff You ni police in five minutes dinañ leen la réet. oh of course ñoom xam nañ ah, first time bi dañ you téye yóbbu in jail. Mm-hmm. More time bi fa yeneen ñi nekkee. Mm-hmm. yeneen ñi dañ office bi. Mm-hmm. so I'm dama leen xaar pour wax leen ok next time it's better pour ñu bindante you waxtaan maa deklu Amnesty Watch mange deklu Human Rights Watch Amnesty International. all those organisations te ñooñu noonu Gambians lañ ñi ma leen mun a dégloo yéen soo leen ñëwee man tam ma And I have series of meeting with all those institutions, including State Department. su ñu ne ma dëgg la waaye ma ne leen benn waaye Pa Samba ne suñ kër la ñëw Pa Samba maamam ak suma maam ñoo doon nekk tugedam pas eh, Mademba Loo moo jur yaayam yaa awa Loo mu jur Pa Samba Pa Samba suma rakk la ñun ñëpp a jógee ci di seen backgrounds li ma la wax mooy doo ma mun a wax dara loo xam ne xaw ma ko because of man maa la jiitu ci àddina suñu expérience yi nag mun nañoo utee yow nga yaroo fii man ma yaroo fële waa at the end of the day naanukaay bi benn la man ndongo Afdaay laa in those days i wahin mm-hmm. I was born and bred Afdaay mm-hmm. biir Afdaay mm-hmm. so benn ndongo du ñëw di ma wax loo xam ne man xaw ma ko because I've biin through it I've been there done it waaye léegi comme que ambassadeur laa di represent Gambia dama war a muñ ma ëpp up te xam ne lii alali nit ñi la ah ma use diplomatie ñu toog waxtaan ñoom ñu wax ma jox ma seen kayit ma seen information bi with a covering note normally suñ la joxee kayit ci embassy yi da nga cee attach wa they call a deep note benn cov note every embassy will do that xale yow ñi jàng political science take note mm-hmm. waaw loolu embassy yëpp la suñ la joxee leetar yow doo jox yónnee leetar bi noon de mm-hmm. foog nga njañ sa waale ci nga sànga leetar bi mm-hmm. dóor ci benn deep note yónnee ko kër soo ñoom ñëw nañ mit nañ dégg naa li ñu wax ñoom tam dégg nañ li ma wax then eventually the relationship got But after, before my nyibisi ki Usain Mbenga, and yom ya Sophie, they walked in, ma welcome leen ñu toog ci lobby bi fekk jëndal nañ property bi ba pare 1.6 million Gambian flag mu ngi faa naaw that is the home of Gambia so gambien su fa ñëwee aw ma right pour wax dara dama wàcca si rek ubbil ko ñu toog mm-hmm. gars yi door di ñu joxagum kinkili bàyyeeg mbor mbor gi mm-hmm. ñuy waxtaan mm-hmm. that's it yeah yeneen président yi dañ dee ñëw American ñëw seet si seen ñitti dëkk yooyu noonu waaw waaye gis nañ Yaya Jammeh su or any other government entourage or vice president ak ñoom seen uh, di nga gis Gambians si ne daa going a génn di strike di wax lu leen naxari as the ambassador then do you feel you know, it could have been, you know, the other way around. Uh, yeah, Jamie, what ex, you It's Gambians, yep, so here, nice. Jamie, welcome, welcome. But yo, Jamie, so you mean, yep, naked, saga, needy, what were you now? waaw o waawi o min suñu e ñinan ko naka ah. jame ji lanka eh, waaw abaɓe ji ji jame ji jame ji waaye nag loolu da ngeen ko am wrong mhm. am na yeneen président yoo xam ne démonstration yi nekk seen ko mhm. xaaf bi sax nekkul ci jaam mhm. waaye Gambien si xëy na bu li ma laa ni ñu nekk Amérique yëpp xam nañ ko hu am na président yoo xam ne bi ñu ñëwee including suñ kilifa gi nekk suñ dëkka door waaye nag yéen amu leen woon access to loolu ci médium bi. Mm-hmm. no they were very serious demonstrations. yeah for Sénégal. for Kenya for South Africa. and all of you know, lu mu saf ku ko ma caa ko xam nit ne ñun doon Gambia ñun Gambia bi rek leen gis. dëgg la waaye baax na ngeen xam it's the free world we have to respect democracy. It's the rule of law. So, but then you're not going to feel I felt like being in America for almost 14 years, this is the right thing to do. You have to allow them to demonstrate. So, man, I was I was a different ball game. You can need something hamura hamura. So do that all guy corner them some sumara ka ba them ni way me? mi No no no. Mandama is isi ni support them yom tan ni taxaw. Ay ya da no la Do man ke la ñu bari. Dama len advice na. Jamé dégg advice me. Mohammed Omar ni wax déggal. I am against this thing. I am against the Lee. I'm against Lee. You are da nga support Lee. You are a bona fide Gambian, a taxpayer. you want to tell you to money. It's a free world. So you know you make a fee jam di di why nak lolu lolu nak sabu du fot bopam lolu man bima fa nekké la Moussa lolu musuta am. Lolu ñun ñoo leen advise ko fatel ko ne am retired security mhm. yi lu ñoo def xam nga mag xale buy ut ndam ak mag muy daw gàcce olof yi loolu lañu wax xale buy ut ndam ak mag muy daw gàcce am nañu raay pour démontrer ñi sopportoon jàmmee am nañu raay pour démontrer ku nekk nga déglu content bi lu moo wax nga déglu kii li moo wax jàmmi ne la biir naa ay school biir naa ay lopitaan def naa lii keneen ki ne noo waaye bu leen ñu gétee yéen a ngi rey kii ana kii ku nekk nga déglu ko ñu dem nag fa mbaax na nekkee benn ku am dëgg rek dem ci kaw so man du ma stop kenn mu démonstrate ku bugg démonstrate I want to even watch them So you may invité sax ma dem jox leen lool they just didn't give me the opportunity if they told me they were coming and they do it properly damaa ñëw taxaw suñ waxee ba pare ñu hand over ma send later. in the civilized world no one can ever defee you go to State House. I'm in Fadika almost one year outside the State House. You get demonstrate. Over one year. They were about Israel, about Palestine, about fee. Hey, it's part of America. It's their First Amendment right, the freedom of speech. Mm -hmm. So, ni ñu wol bi fokk the Gambia loolu. Te Gambia gis nga léegi nañ waxante dëgg buñ ko abuse that, waaye léegi macha allah freedom of speech freedom of activity ku nekkaa ngee wax waaye properly Uh, bu boobaa rek ñu ñëw si enough is enough uh, yow yaa wax jàmm ne enough is enough uh, ma bëgg a xam rek lan moo la inspire si loolu because ñu bëree ne yow nga ne nga xam ne nag mooy place su ko defee nga a comme nu fa demee rek su ko defee a xam rek lan moo la motivé very lucky yow yaa maa laaj question si xam ne ñu bëri at yëpp ñu ma bëgg a gis pour laaj ma ko waaye ñëw wërsëg bi yëpp Far Samba la ko jox mm-hmm. borom peng-peng yow fàtte naa keneen ki mooy peng-peng yow boroom ceeb nga foog na hey li ma la wax mooy ku nekk sa opinion wax ko su fekkee ne ñoom ñoo nekk suma biir xol nañ ma wax ñi wax loolu su dee ñoom ñoo nekk ci suma biir xol pour ne man dama doon def loolu bi ko xam naa ne jàmmee ñàkk na that is a very unfair statement mm-hmm. jàmmee xam na ne man façon nit kii laa man dama fo ne moom xam na loolu Jammeh former president dafa lose election mu nangu December second ma am meeting at the state department that very day luckily luckily dañ amoon appointment dafa mel ni ñoom tam dañ yaa boppa waaye man yaayuma boppa waaye American si dafa meloon ne dañ yaa boppa because amoon naa ñoom appointment that day for lunch xam nga Washington it's all about network ak lunch ak lobby foog nga xam diplomatie bi Uh, there is a way to go about it coffee di di i I'm saying all these things for younger generation You learn from international world. bi ñoom I have to comment xale yooyu bu leen am not xale yu America they go to the state department at congress the meeting a and they are young Gambians For them, di nga Gambians Come Gambian talent nii ñoom Pa Ousmane so man I proud I'm proud when I see these things they demee the Islamic Development Bank in Jeddah Gambian for them dem Gambian so mashallah, yana yéen a yàlla gën a dimbale Gambians wherever they are in this world they are smart people. It, it, it didn't happen overnight. Mm-hmm. Over months. xam nga prayer dafa important Kuko ko gom gom nga man gom na lima ma la wax laa gom yow soo ko gomut I respect your opinion or oh, prayer man is part of my origin part of my history and it's part of me because dama gëm yonent bi islam yonent bi moo wax ne addu'a silahul mu'min mu weapon uh, prayer is the weapon of the believers mm-hmm. Again, so man dafa am yu ma gëm kenn ci génnee su as long as I'm alive I believe in praying to God to guide us and put us on the right path balaa maa def dara so we've been praying about this we've been talking to people asking opinions of Gambians asking opinions of Gambians here and in the diaspora and friends of the Gambia because there are a lot of people who love the Gambia maa ngi waxtaan ak di opinion di denca di bàyyi xel lu mu fi def ni la you know legacy outlives life Mode Camara moom ma daan wax loolu te wax na dëgg dafa yàgg America ñu bëri ma doon dimbale foofu Gambia, you bëri ñu ma dimbale indirectly because you don't doon liggéeyal company Why they love Gambia I may have to mention a few Nyom Kumba suma jarbaat Kumba Konaate in modu Camara ak ñeneen ak ñeneen ñoom Astrid Christensen ñoom. xal so is it right ah. si ma doon dimbale foofu ma jëlaale opportunity thank all of them I'm sorry I cannot mention your all names but mun naa toog bés ma dajale tur yooyu yëpp. ñoom in René Antoine Blade ñoom i Tony Blade ñoom Fibian si ñoom Tidiane boy yi duma muna tudda ñëpp waaye ñooñu it's a handful of the rest I have a lot of friends and supporters in the States and I thank them for helping me whilst I was serving during very hostile and difficult times but alhamdulillah ñoom ñu ne dañ wax ne dama was going I didn't know that man yaayuma boppa I am not a fortune teller or a future teller man duma dee predict how do I know that Jammeh was going to lose I just told the he could have stayed here it could have gone all the way no but but but you know, it was all over written that ne, okay, Yaya Jammeh winning because election. Yes. More money did it, man duma Madam, waaw yow Cheikh Omar nga amee sa pen ak sa pipa nga bind hey enough is enough leen bëgg nga dem. te enough enough boobu laa ko waxee de. dama ko ne you have achieved a lot. Mm. God, you ñit you mm. su ma don't def nga lu bari man su ma nekkoon jege on naa ko ne Address adressal nation bi nga apprécier you've done a lot they dégg la jumte yu you, am nañ nga accept jumte you. New seet commission nga paak sa bagage ci jàmm nga dem 22 years yàlla may na la ko nga nekk ci kaw you've done am na ko ma doon tooñ léegi bu maa ñëw mu ne ma xam nga jàmm lu tax yàlla soowee ko ma ne lu xew mu ne eh kooku lu mu doon saraxee ak yooyu mu ne xanaa ma ne ko ah ko te du ku nekk opinion am danga koo respect mm. kooku loolu opinion am mm. mu ne dafa foog kii li mu daan joxe bari na bari boo xam ne Afrique Gambien bi sax su dangaa waaru parce que dafa def loo xam ne dafa difficile pour Gambien def ko te ci yooyu gaali maalo yeeg yu ma xam mais yooyu man du suma cër man interview laa am du mun a nekk si maa ngi nit ñi ak foco waaye li ma óoroon mooy xalaanu ma ne jàmme dina dem óoroon dama ko wax rek li ma fii ne mooy dëgg su toogoon itam as ambassadeur ñu daax ma yàlla dina ma utal leneen loo xam ne Uh, yo eh, eh, recall on back home. You know, but lo uh, uh, immediately In the Foreign Service Regulation, baax na pour youth si there is a document called the Foreign Service Regulation. Li xew ci diplomacy mu jamme Jame mun na ma recall. But recalling one person and somebody getting into a flight to go to Gambia are two different things. Fok dinañ ma yone luma prepare ñom ñoma fa yobon. Xam nga duma tok ñu sanni ma ci foog ma prépare dama wara may container dugal fa suma bagage dama wara a suma dom yi school dama wara prepare, and I have three months to do that in the foreign in the laws for your information hale <laughs> you have 90 days in the foreign service regulation So liggéey in the ministry of foreign affairs Gambia pour nga prépare sa boppa nga ñibi so man duñ ma mëna record rek ma jël suma bag dem dama am ay mbokk dama am njaboot suma ma itam duma dem fen biko ma mom suma boppa but I was proud Gambia moo ma gënal dëkk bu ma mun a nekk si àddina xanaa ma dem pour liggéey fuñ ma yóbbu ma liggéey ma dem waaye pour dëkka nga fi ma nekk nii di dox di dem ci géej gi fenn gënalu ko ci àddina so recall bi maa ngi woon in the process ci la affaire bi wecceeku. Mhm. waaye benn tey recall aatun ma di. ndax mhm. government bi bi ñu ñëwee dañ ma recall. waaw bu boobaa rek ñuy si li nga xam ne nag mooy nguuri Adama ma bëgg a xam rek euh, li nga xam ne nag moo nekk jamono yaaya jaame yow tubaab fa kaala macha allah uncle wan maa mel ne yow yow jamono bu ñëw rek nga ànd ak jamono dem <laughs> ah, bu boobaa rek mbiru yàlla la mbiru yàlla la dëgg moom ah. no matter where the pendulum of power swings ah. always stay with the truth soo nekkee dëgg rek nga nekk yàlla ku fi ñëw di doxal lu du dëgg dina am stage boo xam ne dinañ tàggoo yóbba du ma toppa kenn ci loo xam ne dama foog ne yàlla su ma defee ay mistake sax dinaa ko rectify waaye alal ak lekk jaraluma loolu passé naa stage boobu ma lekk mburoo gerte am suma sutura moo gën may dem di rey nag te aw ma sutura soxlu ma nag boobu. waaw euh, bu boobaa rek ma bëgg a xam nga nekkoon ambassadeur jamono Yaya Jammeh euh, jamono Barrow bi ñu def la consulat euh, foofu noonu si réewi Saudi Arabia ma bëgg a xam rek ñeneen ñi ngi xoolee ne loolu noonu wàcce sa garaat la. you know from an ambassador eh, to a country, you know, how many answer to uh, the answer. Uh, <coughs> and then before you, you don't need everything. you know you um, ñu say, ko ask," na yow so you say, jël loolu is na yow you are an opportunist. you know ñeneen ñi you ko say, "I amuloo dara si loo mun a you know so what's the thing about that. It's good. If you go to the United States, there is somebody called Rush Limbaugh. nii yéen la mel dafa nekk gars yi dañoo nekk di waat rek laajal yi ñu nekk Amérique Washington yëpp xam nañ ko ak ñoom it niil boot ak gars man li ma la mooy passé naa stage di rey loolu ku gëmut yàlla mooy dugga ci façon yi xalaat yi man du ma dee xalaat yooyu man dama am training man man nga fu ma nekk yow da ma fekk suma kër man daw ma di topp ak kenn man lu ma yàlla jox rek doyloo naa ci suma waajur yi dañ ma yaroo doyloo man du ma daw mar du ma naan taxa xaw ma mar taxa naan petit Cheikh Omar fay passé na loolu du man de ma maam lim yar laa ne ak kilifa Banjul yi passé nañ loolu kuñ yar dëgg dëgg ci yar dina am yoo xam ne doo ko def soo gisee mu wàcce yoon rek yar bi des na man li ma la mooy pour ne ah ñu wàccee ma grade xanaa xam loo ne grade ci kaw yàlla la ci suuf yàlla la what is important to serve your country kii xalaat yi fi garaat li ñoo ooyee personal aggrandisement mooy ñooñu yeneen façon yi nit lañ ñoom yëfi place moo leen itteel man yëfi saaf Gambia ma nekk ministre dem nekk deputy head of mission boobu gën a garaaw di boobu nga war a wax bi ma nekkee ministre. waaye yàlla moo def noonu caat la addina caat la yow sax léeg-léeg géej dafaa fer di fees addina moo demee noonu léeg-léeg mu am yii xew ci yow di xew ci man life is not permanent suma teacher Manu Kumba maa ngi ko nuyu no mu ne ma no condition is permanent. gis loo jaamee nekka former président nekka military police dëkk ci kaam bi amee benn double cabine moom kenn rek. di sol uniforme trois heures mu jégi mu am plaine am ay kër di maye loolu mooy àddina <laughs> moom laa laa wax àddina caat la nii la dee de loolu président Adama Barrow nekka di liggéey AC am real estate la ñoom mu jékki-jékki rek yàlla def ko presque soo yàlla moo amee loolu man du ma musa suma nguur duñ ma musa jox dara ma xeeb ko because suma pa daf ma advice on ñu ne loolu baaxut I work at the Gambia Consulate in, uh, in the United States. Mm -hmm. Business card bargaining. Eh? No, no, yeah, you go to the wall, you have to talk, wow. both in Arabic and English. Mm-hmm. Set us my appointment before. Mm -hmm. I am appointed, by before Luluma, you won Abu Dhabi, mm -hmm. Deputy Chief of Mission. man maa dimbale waa tur bi ubbi waat Gambia embassy bi fu ñu tëjoo mm-hmm. bari lañ fa am man maa ñu ma àndaloo waaye finally ubbi nañ ko léegi beneen ambassadeur ambassador mm-hmm. man maa gor foofu ñax yi ak prepare for moo over man nag movement loolu mooy Gambien da ngaa saaf not because of you legacy outlives life ne ko youth si xam nit ñi am ko lan nga fa def lan la fi def important Your legacy not about ñaata at nga dunda sax so man maa ngi i yàlla ne réew mi jox nañ ma opportunity ba ma saaf dama dee xaw a exacté na di tàng gis nga ma man léegi sax this gis ma yuuxu because I'm a retired military officer ba pare ci kër daara laa

And it's important you have the interview bi is to benefit the youth It's not for man maa ñëw di source because i am not ñoo xam ne it's important to inform them this is to share with the youth for me and for ëllëg it's not for anything else so ku nekk el na and I'll continue to do this as long as I'm alive media bu ma mën a share ak xale so that we can shape the youths Ahmad Ba, honorable Ba, you ñu the demoon na Saudi I was not on the ground I was in the United States visiting with my family and taking care of some

in New York during the United on the side on bilaterals time boobu def naa ko in former minister of finance Keba Touré Koro ki ñoo ooyee tiis ñoom Mambouré ak boy si is a normal thing Why loolu foog nga ñëw isiwaat ko eh, ministry of justice dinañ ci advice as legal opinion and the chief executive with cabinet xëy na finalize so man MOU du ma ci wala wax because it's something temporal it's not binding mu ngi mel ni ñu ñu waxtaan tey rek d'accord ne dinañ jëf li dinañ jëf li ñu dem into agreement MOU subject to confirmation yow nga d'accord man ma d'accord suñ ñi ñëpp d'accord waaw thousand youth Saudi Arabia uh, ku ñu dem jàngal li nga xam ne mooy ay skills rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk uh, lecturers si University of the Gambia te jamono ji xale university yu bëree bëri ñu ngi wax ne university yi amul lecturers sometimes nga mën a sax nga gis ne uh, lecturers yi doyoon so bu nekkee Gambia ñun few people yooyu leen am ñu war naa yóbbu what's your take about that. ku nekk yow nga jël responsibility li nga wax man duma mun a wax lu bari ci mbiri jàmbur lu mu wax li ma mun a wax nag as ku nekk daal nga bàyyi sa xel looy wax ak looy def ak naka la waaye ñun su nekkee ne we short in some areas xam nga ku ñëw sabar sa kër doo doo wàlliyaani doo jéggaani dem naa tey ci university bi I visited there you know that my brother is there MDI ak Aliou Diadio di honorable Aliou Diadio very good ma romba mu ne ma ñii ñëpp students university yi la parce que man dama am interest for the young pour déglu lu ñu xaw a wax waaye moom li mu wax noonu xëj na as the minister of I think that question should go to him. Hey, na mom, he has his reasons whilst mu ne dafa buga yobu thousands of people man luma wah rek dama preempt or dama hypothetically I may be say and one thing I avoid bugu di wah luma hamut. the rest of my life su ma yàlla mënee dimbale ci loolu du ma ci luñ ma dugalut wala may wah loo xam ne xaw ma ko as a Gambian nag am right pour dara charity begins at home ne la ñu defar suñ institution si ne la ñu defar skill si. nee la ñu nee ñu defal youth bi daal graduate si sorry balaa ngaa ñëw nii graduate si ñaar lañu am you can have a bachelor's or a master's that's fine waaye loolu doyut it's just the beginning soo soo graduate ba pare. utal ñaar benn nga look for technical skills or entrepreneurial skills am degree rek doyut loolu laa laa jëm wax léegi si àddina bi yooyu dafa tuuti am ay yow degree baax na but you have to build up yourself. Eh, so léegi Gambia foofu la war a jaar. waaw eh, li maybe we'll come to that. waaw li nga wax am na solo bu baax a baax waaye ma bëgg a xam rek eh, gis nañ ne EU ak yeneen i dëkk jàppale Gambia si bi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci tolof tolof xaalis bu bari dugg na Gambia. Ah, jamono ñu ñoo wax ak yow nii xaalis bu baree bari dugg na biir Gambia ah, waaw lu tax xaalis boobu noonu ah, Gambian government jëluñ xaalis bi ñu invest fii si biir Gambia dan bi yóbbu suñ ay doomi réew foofu si Saudi parce ay evidence génn na si internet bi ñu ngi wax Saudi waa Saudi ñu ngi yàqal li nga xam ne mooy doomi Gambian si nga xam ne ñoo fa nekk su nekkee ay jigéen la ñu ne naa saako su nekkee ay góor la ñu ngi dugg si yu ay ñaawa ñaawa ñaaw ki nga lady bi ku waxtaane yi nga fa xew euh, ñu bëgg rek euh, yow as euh, ki nga ngay general bi do you think ne naka gisee bad evidence yi nga nañ ko ndax yéen ñi def yéen lu ma wax ni is news to me li ma wax ni xew hmm. is out of my job description hmm. man my duty is the jurisdiction of Saudi Arabia Jeddah and Gambians in Saudi hmm. am na yu bëri yu xew ci nguur fii du ma ci comment du bëri bi ko xaw ma details si and that's not my area ku nekk da nga am area ministre boobu moo naa nekk in a best position pour ne la soo gisee ma def lii lii moo tax loolu day si mistake su bari nit daf lay dem rek di waxi fi beneen ministre te fekk xamu fa lu bëri unless government spokesman bi moom daf dee xam yu bëri mun naa waxal ku nekk waaye ku nekk sa waar fa ngaa béy fa nga war a tontoo bari bala ngaa ñëw di wax loo xam ne xamuloo ko di yóbbu si ñoo yóbbu ay nit daal ci lu leer lañ leen war a yóbboo man gisaguma benn document te man foog naa su nit ñi di ñëw Saudi Arabia foog naa am naa yaakaar ne naa ko yëg dañ am embassy am na yu bëri mun naa jaare foofu dañ am consulate general's office waaye ambassadeur boobu lu mu am ci loolu xam naa ne foog mu waaye gisagoo ma benn document waaw ba léegi rek euh, ki nga xam ne mooy ministre bi euh, yooyu noonu yëpp ay prouvé ñi wax neen ko internet bi na waaw moom it mu wax mi ne soo gisee yooyu di daan am euh, parce que ñooy noonu li nga xam ne mooy contrat soo ñoom nguuri Gambie su ñoo génnee nit fii biir Gambie di la yóbbu maanaam dinañ sign ay document ak ñoom yooyu noonu soo loolu dina nekk loo xam ne dina leen dimbale waaye recently yooyu process la yooyu process la de xam nga wax neex na waaye nañ make sure ne daal wax wax lekkati neen naxuli béy looy def def ko properly man dafa am ci yu ma góom du comme xale yu bari ñu social media rek di wax non non ñun ñun yow nga te it na bi euh, first time minister of tourism. Um, naka ngay. Euh, he's highly experienced guy he's been on the ground for a time. yes waaye nekk minister. xaw fi tourism la xam as a person. Uh, he's been on the ground. He, he has exposure. Yes, he have exposure. But in a case, like so, in case in Gur, especially this current government, you know, exposure. We sila mo gina duga. You know, sila contracts di gina yoko bangay muna dem before ni bali nun la kami at legi dafa uti. So uh, mabuga hamra yaw nga neka kinga hamra na yain jid ba fufu nung si sawari. Uh, ndax uh, nekulo di hall lumimal at minister. Wow, wahad la nenen. Wanga Dega, but we have the embassy of the Gambia in Riyadh, Saudi Arabia. Mm -hmm under the leadership of His Excellency Omar Jibril Salah, mm -hmm. a career civil servant, mm -hmm. a seasoned diplomat, one of the most experienced people in the Gambia now. Oji, my ambassador bi so kayit bu Koku dina advise government dina ma share because itam kubo kachi getagi, gétta gi moom mu jida. so we walk hand in hand i am sure ne kayit bu dem te liyep momungi in the middle he will advise the government from his perspective, then the government will decide what they want to do as a government. After they have advice from the Ministry of Justice and all the stakeholders, then the president will take a decision with cabinet. Non la deme. demee waaye wah wax munna yëpp am dina ba ay weeri weer or at am na lo xam yanko do ngi gis man gisaguma ben këyit to this effect taxut ne amut de mun am day some groundwork. Why waaye Gambien bu ñoo yóbbu biti na la ne dina am ci lu leer I agree with him the ambassador will advise Ministry of Justice will advise and we will advise because we are not going to put our youths in harm's way moom it jóg na waaw moom mu wax mu ne soo gisee yooyu daan am euh, parce que ñooy noonu sign li nga xam ne euh, mooy euh, contrat so ñoom nguuri Gambie su ñoo génnee nit fii biir Gambie di la yóbbu maanaam dinañ sign ay document ak ñoom yooyu noonu so loolu dina nekk loo xam ne dina leen dimbale waaye recently yooyu process la yooyu process la de xam nga wax neex na waaye nañ make sure ne daal wax wax lekkati neen ndaxuli looy def def ko properly man dafa am ci yu ma góom du ma nekk comme xale yu bari yu njëriñ def social media rek di wax nii non non ñun. ñun waaw yow nga te it na bi euh, first time mu minister of tourism. Um, naka ngay. Euh, he's highly experienced guy he's been on the ground for yes minister. How ma fi tourism la xam as a person. Uh, he's been on the ground. He, he has exposure. Yes, he have exposure. But in a case na especially this current government you know expose, bi si la moo duga you know si la contract si di gën a ba ngay mun dem before ñu bari nun laa xamee ak léegi dafa utee so uh, ma bëgg a xam rek yow nga nekk ki nga xam ne yaay njiit ba foofu noonu si Saudi uh, ndax uh, nekkuloo di xool lu mu mel ak ministre bi ma waxaat la leneen wax nga dëgga but we have the embassy of the Gambia in Riyadh Saudi Arabia mm-hmm. under the leadership of His Excellency Omar Jibril Salla, mm-hmm. a career civil servant a seasoned diplomat, one of the most experienced people in the Gambia now. ji mooy ambassador bi so kayit wu ñëw kooku dina advise government dina ma ko share because itam ku bokk ci gétta gi moo mu ngi Riyadh waaye man maa ngi Jidda so we work hand in hand am sure ne kayit bu fa dem te lii yëpp moom mu ngi in the middle he will advise the government from his perspective then the government will decide what they want to do as a government after they have advice from the Ministry of Justice then the president will take a decision with cabinet No, la de demee Why wax wax yi yëpp mun am dina doog ba ay weeri weer oo at am na loo xam ko doo gis waaye man gisaguma to this effect taxut ne amut de mun am day some ground work Gambia Gambian bu ñoo yóbbu ci biti na la dina am ci lu leer I agree with him the ambassador will advise Ministry of Justice will advise and we will advise because we are not going to put our youths in harm's way pay. Sometimes I seldom go into it. Key and I moko them money. Why, why, why well, really, like uh, mabuga ham um, come no go hang and you have experience. you have exposure. They come on a jiwa. I'm not exposed. The money you have exposure. Oh, you have explained. No, say moko muna. Yo, jemo na ham ne limo ne kadi kur Gambia. Yo, yo More like what we Wow. More if you help. Wow. More if you lend me. Wow. Why man manga gida? One hour. Kaba. Man film ne kani dama real. maa ngi ci beneen aar. waaw si jiite bu wér. ngeen dimbali ma rek di ma fay soo leen ma indee loo leen ma laaj rek naa leen waaw ba léegi rek ki nga xam ne euh, mooy Pa Ousmane Diouf di suñu boss. Euh, mooy Gambian Talent. waaw Pa Ousmane. borom cere borom cere ji waaw. cere ak mbuum. waaw def na interview ak ki ne moom Goodwood ambassador la foofu noonu si Uganda di Mr Goodman moom it wax na the same thing ne even sen de ka am neen li ah, nga xam ne contrat ak ah, saudi um, government bi waaye still seen ay nit ñu ngi see dee seen ay nit ñu ngi def ay torox tàng bu bëri so yow soo doon wax ak ñi nga xam ne ñooy look at the camera and tell them what assurance can you give them ne ah, Gambians you buy Gambia di dem Saudi dinañ fa nekk si li nga xam ne maanaam conducive bu baax dina nekk si environment boo xam ne maanaam dina dina nekk environment bu cool suma caméra ci laa mooy ne man am naa yaakaar ci nguur gii ne duñ jël benn doomi doomaani Gambien comme ni ko Saliou Ndiaye di waxee duñ jël benn doomaani Gambien di ko yóbbu ci biti te affaire yi leerut mm-hmm. ministre bi xam na loolu dégg naa mu wax ko suñ nguur gi ñu ngi bàyyi xel loolu bi ko yuuxu bi bari woon na ci ñëpp daanaka dañ daje ci wax ba pare ambassadeur bi fa nekk kooku dafa yàgg ci liggéey embassy óor na ma ne du topp rek ñu buub ay gamben rek di leen jóor foofu te fekk affaire yi leerut man suma boppa lu ma bàyyi xel la su ma delloo te dinaa ci waxtaan ambassadeur ne ko am na interview bu ma am loolu gars yi si raise nañ issue boobu and even concern Gambians orisawa concern Gambians soo kon loolu laa wax ne go mané suñ fa nit ñi di dem ci lu leer lañ fa démé way nak xam nga man moomu ma nit ñi ku fa ñew am sa yoon ba dugga fa duma lené lo nak nga fi duggé way Gambien bu nekk suma website bi légui mu paré Gambien bu nekk su paré yow ko am they can come to my website lolu musufa am na ko start the consulate of the Gambia in Jeddah Saudi Arabia di ngeen very maybe a week or two rek website bi na so soo leen amee questions pour man ak suma staff bi ngeen dóor si question lifin bi rek on the website ñu tontu leen Gambien bu am question itam mu jox ñu fa te óor na ma ne embassy bi is doing the same thing does that answer your question Fatou. Euh, kon nag euh, dina answer yi nga xam ne ñoom ñoo ko euh, doon laajte bu boobaa rek ma bàyyi leen ngeen ngi tontu man duma dee tontu question su ko defee rek ma bëgg xam rek embassy li nga xam ne seen embassy bi.

loolu am naa. waaw am nañ embassy du kaay am nañ loolu. waaw waaye léegi ne nañ ko adresse to the ministry of foreign affairs ak embassy yooyu ñoo ñoo jël right people pour pour régler yooyu xam nga loolu man loolu maa ngi door di wax ne xaw ma ko li ñoo wax noonu xëy na am na ñeneen ñoo xam ne waxuñ loolu waaye man xam naa ne daal Jedda ku ñëw man fi ma amee consulate Jedda laajal ñu demoon Màkka ñun foofu open door policy la te óor na man ne yeneen embassy yi ak yooyu yëpp ci loolu lañ leen digal. ministre bi ministre bu ees permanent secretary ñoom ñëpp wax nañ leen ne nañ ubbi bunte yëpp comme niñ ko waxee woon at the beginning that's our philosophy the uh, the ministry and the minister of to everybody now with the permanent secretary um, Mrs. Dr. Toure and uh, permanent secretary Njai these are people who've been in the foreign ministry for a long time they're highly experienced the minister mus naa nekk foreign affairs mus naa nekk ministre ci yeneen place te ñooñu ñëpp liñ bëgg a mooy na embassy ak consulat yi to serve the Gambian people te ci train boobu la ñoo demee incha allah. waxuma ko de gars yaa ko wax gars ñu ne yéen eh, yéen a ngi enjoy li nga xam ne mooy play nii maanaam si play nii di enjoy li nga xam ne nag mooy paa bi yem yi ak ñoom ñu seen ah, kiyaawu leen li nga xam ne nag mooy eh, welfare yi ñit yi looy tontu gars yi. Ah, loolu day as I said moom dégg rek la. su dee ñoom loolu lañ wax te ñu am evidence about it loolu day baaxut enjoy enjoy rek loo fi ñëw is to serve the taxpayers and the Gambian people ah waaye nag foog ñu tukki su nit ñi di tukki officially foog ñu dugg plane te ku nekk dafa am maqaama bu la yàlla jox ministre bi dafa am level bu mu mun a war a nekk su demee ci dëkk dafa am hôtel bu mu war a nekk waaye di tukki di tukki di tukki doo toppatoo fi Gambien yi loolu day waxuñ ko man gisuma loolu xawma loolu waaye man xam naa ne du def loolu man maa juuti. and man collègue si ma xam ñu bari seen juuti mooy lan la Gambien yi soxla defal investigation in Jidda so far time ma fa spenagum am na Gambien yu fa nekk laaj leen ne leen ndax seen consulate bi dañ dee tëj bunta yi dañ ko dee ubbi yow after mun nga maa koolaat ne ma def naa investigation ñii ne da ngeen dee tëj war a gën a ubbi jox naa la permission boobu please do o lan lañ ñoo suggestion box bi lan lañ ñoo jox pour ñu mun a gën a jànga from our limitations then ñu rectify Adama Barrow président bi. naa ko du torop torop de waaye miin naa ko a few years before mu nekk président. foo ko xamee woon. dama ko xamee fii ci Alaaji Musaa Njaay ak mu nekk di toppatoo yi real estate. Hmm. xamoon naa ko nii waaye not deep not deep. waaw jamono ji xam nga ko deep. jamono du xaw ma ko diib di amante benn yoon laa ko mos gis bi mu ci réew mi ci boppi i mi wente hmm. xam diib isi wut de naa ne ku baax la man dafa am dafa am cër xam nga nit soo dafa am lu ma ko itam ma waxaat xam nga gars yi ma dañ dax moom loo wax rek mu waxee fi Quran fi ko loolu laa xam dañ ma loolu mm-hmm. suratu Yusuf verse 81 ñu ne doo nekk di seede loo xam ne xamuloo ko mm-hmm. bul seede bul di wax loo xamul man suñ papa yi dañ bañ loolu so président Barrow li ma xam ci moom ah noonu ay ati at xam naa ko dafa am oyof dafa am respect dafa jaar euh, ci yu bari ma jox la breaking news nag boo xam ne congratulations pour nga dégg ko fa di first time fi nga fi ñu toog nii man maa moom nañ fee toog ñuy ñaan néeg bi néeg bi waaye fekk fi pare ko fay naa soo xamoon naa ko tuuti waaye man du ma kuy daw di coow coow yu bari xam nga ñun ñëpp xamante ni ne Gambie dafa tuuti ñëpp a xamante xam nga lu ma xam ci moom oyof am respect baax sooy wax mu bugg a dégg li ngaa wax ba pare daf dee déglu léeg-léeg nag ba pare mu wax la xalaatam waaye moom mooy président moom la yàlla jiitaan at the end of the day yow da nga ko war wax rek sa xalaat bu rafet décision bi mu ragal yàlla am te óor na ma ne jullit la am naa yaakaar ne li imaamu Tawa ci gàmmu bi attitude bi mu amee jikko bi mu amee as a leader su nit ñi dimbalé time bi mu am ay lot kan happen in this man Cheikh Omar fay ma la wax loolu lii suma gom mooy suma opinion and I think I have right to my opinion. duma ne Samba Mbayaan Njuufee. boy lan ci rek dimbala. ah parce que yow li nga waxé ni gay yi dañu wax ne mu ngi Samba Mbayaan. boy dama man passé na yooyu ay Samba Mbaraan man yo xam nga man ci xal bu ma nekk man xawma ma ay Samba ñoom ni def yooyu président baro ci bopam xam na ci man.

hotel musu mosu ñoo né gam pour tok ñaan ta ñew suma kër pour tok ñaan waaye xam Omar Faye bu baax seen hostage bu ko wana mo ma mu di ngeen daan solo sen version rafet di taw di ñu raw mané ko way ko ñëw leen mu noonu tooñ ko la nak itam ya, ya. soo ko xamul soo ko jege ñu rek doo ko am sen sof yi moom bu graw la amee ya, ak tooñ mhm. waaw yal nañu yàlla dafal cat mhm. yal nañu yàlla dafal cat I think he. No, mom. excellence am na time booy ne dama ko daan ooyee kanilaay waaye man fàtte naa loolu. mu ne ñu ne bi ñu booy ñu ne la doon téye suma brief kese maa ngi non man fàtte la ko ma loolu. booy yëpp a ma daan toppa nag ñoom Yankuba Touré ñoom Edu Edouard ñoom koo fi déggal ci soldat yi rek ku ma jege ñoom la ñi ci nga xam ne tey ñëpp xam nañ leen waaye moom daan fàttale ko ma waaye ñoom Seydou Gueye oo koto Antumaan Gueye daf ma daa ne xanaa yow sa booy yi daan ñu wax da nga fàtte kii diw sàngam bi waaye man fàtte naa loolu te bugguma wax lu waaye li óor daal mooy man li ma Linka Barrow tuuti nii sax a ko egguma woon ci équipe bi ko amuñ woon was this gap amuñ woon da link bokkuñ woon ay demukaay su ma demaan seeti congaan opposite dépôt dinaa daan gis ñu nekk ci biir ma gis ñu taxaw di sañu su ma laajee congaan mu ne ma ñoom jàmme la but then he was a second lieutenant or something when I was already a captain moom moo ñoom benn jaasi so man jàmma jooju rek laa xam li ma la wax nii nag ba ma Mansour Ndiaye interviewé yal na ko yàlla yore réew Gambia soo demee ci tépp bi di nga fa fekk di same thing ma ne la du daan suñu uniforme ku bëggoon liggéey bi la waaye xaw ma ko bu baax so anything lu ma xam dinaa ko wax lu ma xamul du ma ko wax du ma daw di toppa kenn ay na yooyu sax waruma ko wax waaye yàlla rek laay toppa mm-hmm. waaye yàlla wàcca si wut mm-hmm. yàlla fa am ñum jiital mm-hmm. ñooñu ngaa xam nga naka la ma daan ooyee my son my my Yefikal, mhm. waaw mu ne man do mu ne ñun séeréer di doomam la mhm. so so hey my son how are you ma ko excellency what's going on na ngeen def ñu nuyu man ñu wax comme ay gor ay nit ak nit that's my relationship with him mine aladi mansour interview woon na ko yàlla yëre ah, kooku moy mansour ndjay man suma mam la ah, bu bare ñu ñaanal ko yéen na ko yàlla xaaral alaaji seet ñu ñep aladi alaaji laalo samate ko tan loolu neex na ah. maam interview uh, uh, ki uh, a na fi yàggate wér boobu yàlla ko may hmm. waaw paa xam nga may dafa am hmm. yàlla moo ko may xamante woon nañ waaye xam nga ñun time boobu military du dee dugg ci politique hmm. waaw ñun duñ doon involve time bi Gambian Army ñun duñ involve in politique ñun dañoo liggéey ñu dem suñ yoon euh, so xam na ma nii waaye dafa xam suma maam bi ko def daa nekk suñ kër Dobsin moom moo suma rakki papa yi mbaa sa saava bi du crash soo waxtu jotee ko am na benn saava bu crash de si suma benn interview mm. non am ready to spill the beans fi mu nekk dama waaye nag am gonna do it with respect mm-hmm. ak honneur du ma wax dara loo xam ne dafa disrespect au lifin so su ko waxee itam maa ngi leen a ñaan foo leen ko mun a am opportunity ngeen because that's not my intention mm-hmm. waaw lu ma wax lu juum rek na ma nit ñi baalal xam nga sometimes I get excited All right. Wow. Uh, how do you see question. the Balal, ma wa, tonto guma sa question bi di. Okay. Sa Dauda. Sa Dauda. Jami bu baax. Mm-hmm. Yi ak biscuit. So Sa Dauda dal julit bo xamne la adina bi yep ko bëgga. Uh, jox naa ko Silva Jubili bo xamne bes ma ko joxé after af ma oyat contane. bi ñoo dem laay biiree itam mit na ma bi ma oo nomba soldaar yi muy ma laaj na ma naka nga mun xam nomba yi yëpp ma ne ko because of interest lii mooy suma interest waaw ci liggéey boobu loolu du ma ko fàtte boobu Seehu Sabali was the minister of defence honorable Seehu Sabali mooy woon vice président nit ñu baax lañ woon tiimam bu tiim bu baax la amoon maa ñu ngi koo ñaanal moom moo sam yi ledi ci leel ak ñooñu ak njaboot gi ñu yàgg fi te wér ku baax la saa so sa Daouda def na lu bari Gambia jàmma foundation yi gam jàmma ji mooy number wan ci kaw ak kilifa yi mu àndaloon in those days pour taxawal di politics in the Gambia ñi ko daan dimbali ñoo xam ne sax ñoo ko ñoo ko jiitu woon waaye at the end of the day ñoom ñëpp dañu àndoon to help the foundation of the Gambia up to independence bi ñoo dem Marlborough House di fa meeting ak tubaab yi pour ñu lower the Union Jack ba pare éegal di Gambian flag bëgguma dugga boobu history boppam la Gambia because it's no more New Gambia. It's three years now. We're coming to three years. Not only the same A lot of people are very much in hurry. Gambia deka bu ñakala. Gambia fan la ñoo mëna amé. Nit nit ñi bayyi seen xel itam. Te let us be realistic. Yi nga yëfi nguur, isa yëfi nguur easy. You know, fokk nit ñi appreciate loolu. Ñoom ñoo sampa seen boor, sampa seen dinda. Na ñëpp dajaloo ñu support what we've got. Waaye su dee lu ñëw rek nga clear. Dara du musa samp. Gambia daf lanaa suñu income GDP bi fu mu what do we have to export out here nothing mm-hmm. and you want the Gambia to be like I mean come on mm-hmm. ñu ngee try waxuma ñii rek sax but Gambia yep in general ni ñaa ngee try Why? yàlla ni la jox opportunity léegi let all Gambians gather young or old to support them you know how you support them mm. xam nga nit ñi dañ dee réere mbir mm-hmm. nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne sa mbokk su defee suñ ko tooñee danga ko war a sahaba yi ne ko ah loolu day dëgg la mu ne ko mu ne su tooñee sax da ko war a dimbale sahaba yi poos ne ko sallallahu alayhi wa sallam ah loolu naka la mun a amee koo xam ne dafa dañ ko tooñ ñu dimbale ko waaye moom tam su tooñee mu ne waa nii ngi leen a dimbalee wala nii nga koo dimbalee da nga ko wax watis raay noonu la nit di dimbale mbokk léegi Gambia fi mu toll especially youth generation bi maa ngi leen a ñaan ne ñëpp dajaloo ñu support the leadership of our country the way to support it mooy ne doo ko nekkal ñu ne Samba Mbaye at di taatu yooyu yëfi xale la if he does well nga applaud ko suñ juumee nga call seen attention waaye wax yu yëre wax yu yàqu yooyu dafa suñ nga wax am solo bu baax if they do well ñu applaud leen but then suñ defee wrong ñu wax leen ne they did wrong but then do you think every government will appreciate people telling them wrong the question of appreciation is at another level that's something else let's just do what is right first is to tell them what is right if they do wrong you call their attention waxuñ nga saaga kenn waxuñ nga xas kenn waxuñ nga disrespect kenn nit ñi nañ jàng wax bu rafet like some countries ñi ñu wóor mun ngaa wax nit ki dëgga te doo ko saaga doo ko xas waaye nag suñ dëkka la ñun ñooy taxpayers yi suñ government day di accountable suñ defee lu ne ah dëgga dëgga lii baax na de waaye lii daal for now now it is time for the younger generation to come up with that attitude to help and learn from the, what happened here DP Sir Dawda to former President Jammeh now we don't have any excuse yàlla wan nañu ñaari government what is the excuse now Gambien day yàgga di joxe excuse excuse amatu saa daaw da def na lu fi mun former Jammeh ñëw na dem na now we have President Adama Barrow let us gather together and take care of this country wax rek du dee so what do you think about Adama Barrow should he set for the next five years as you know yéen a ngi mbewle like wax baa ngi bari ñii ngi wax ne three years la gars yi saa ñii ngi wax ne five years five years ah, gis nañ ne tamit moom dafa mel ne dafa bëgg a continuer xam nga nguur dafa neex every Gambian has the right a fee continuer la neex every Gambian has non ah! mm. ne ma dama fi bëgg a toog dama déglu la sa programme mm. lan nga am lu tax nga bëgg a fee toog is it the interest of Gambia yow nga nekk fi it's too early to be making too much noise nañ dem ba ci kanam tuuti You say whether this government will deliver national development plan blueprint, mu blueprints political parties yaa the Gambians are It's the Gambians who are going to decide who they want why if they give somebody a job before they take the job you start shooting the artillery on him that does not help any country let us take it easy let us be professional nañ def ndànk fii five years not to have seet programme yi amee is this good for Gambia and let the population find out and decide it's not man man man. ñun ñëpp a question bi. waaye yow yaa ma doon bëgg a accuse. waaw déedéet suma ko answer suma question bi. loolu dama foog nag nga ne ndax man dafa mel ni maa ngi bëgg a aw ma laal. be open minded. let the youth be open minded. because man answer suma question bi I want to know yow sa gis-gis yow sa xalaat. The constitution of the Gambia is the supreme moo nekk ci kaw lu nekk am na yoo xam ne jarul waste time di Gambia dafa am constitution man dinaa nekk di toppa wax yoo xam ne amul am following the constitution of the country and what the population want the population can change the constitution tomorrow at a referendum and that over will become. may na maay bi de interview bi tax na. ay fon naa def baal You know, yéen a ma xam nga xale yi dégg nga

and listen to sincere Gambians. Boleko experience bi fi am new ñu bari fi they are very experienced. They have served the Gambia since independence. ñeneen ñi sax kenn faaleetu leen kenn xamut leen lañ bàyyi loolu lañ change in jikko let us go to war skill technical skill more amee defaral Gambia léegi su amut loolu rek du improve on suñ technical skills and entrepreneurial skills Why more than this? Selling Serigne Ba waxoon Medina mu ne su la neexee amal dikri bu la waaye soo amul caractère. maa ngi ñaan muy man ak suma bopp ak njaboot xale yëpp let us value dig caractère patriotism sincerity honesty open mindedness yëfi tribalism yi yëfi wax yu sew yi yëfi añaan nañ ko génnee to be out of Gambia's vocabulary soo leen ko defee rek di future of the Gambia fekka ñun after few years retire ba ñu toog fii di dem géej di sang yéen xale yi di ngeen mën a doxal dëkk bi but you compete around the world Gambia is not an island by itself we have to compete with the world tey suñu Washington DC congress and before the ñëw last question I visited Richmond Virginia I went to grade six and grade seven ma gis xale grade six seven you know what they were talking about national security policy of America for now. speak more ma I was going around the high schools to talk to the students xale you give me a laptop mu ngi amee laptop ñu ngi wax di man leen yow ñun suñ paa yi Gambia ak Washington li leen dee wax ak di capital they were talking about national security interest Gambia bu nekka youth bu nekka man la advice bi security conscious ba nañ bàyyi suñ xel suñu réew mi ku bugg a yàq suñu réew gi nañ kool atte am na dëkk def mes boobu rek ñu génne la. waaye wax nga security te yow uh, yaa ngi woon di yëngu si wàllum security do you think uh, Gambia currently at this minute um, security wise is okay because security wise it's okay because société uh, ñi nga xam ne ñoo nekkal suñ guy economy économie uh, fu nekk nii nit yu bëree bëri ñu ngi wax ne na baro wax gars yi ñu delluwaat baag oh. you know ak yooyu noonu so what do you think about Gambian security people want economic to leave the country yes why I don't know different people or opinions yes or man as Gambian opinion economic lu baax la fii for the time being xam nga ku nekk sa opinion mm-hmm. why because of there are certain security implications yoo xam ne at certain level am na ñoo xam ne xamuñ ko waaye ñu nekk ci biir ori gars yi ñu ne ruhi maaka yi ñu nekk maaka ñoo ko xam dëkk bu nekk dafa am secret youth si laajte leen ay questions waaye bu leen forcé ci yéena because léeg-léeg ngeen a wax loo xam ne yéen xamu leen lu tax mu am waaye foog ngeen waxtaan a mag ñi dëkk bu nekk dafa am national security policy We have Ambassador Baji, former ambassador, who's a very fine officer, Nit Kubah, with high character. He is the security advisor. You get um, security reforms with all institutions. Man attend Nayena. You remember, I even gave a paper on internal security, civil disobedience, civil disorders, rioting. Because Gambia legi ci yoy la wara xalaat. So man I feel that the security process is on, it's taking its right course. We just need to marry up and link everything together. But the reform is, uh, is already in, in taking a good shape. And ECOMIC being here, we are part of ECOWAS. ñun niñ demee Liberia di dimbale yeneen dëkk itam munde nañoo ñëw fii suñ gars yi dañ xaw a suñ Gambien yi yéen dañ di lifin di xalaati non open up relax Ni duñ fi forever time lañ fi am nañ ñëw dimbale ñu ñu set up after ñu dem la yeneen dëkk français yi so demee Sénégal ñu ngi fa am over 50 60 70 years di French Army ñu foofu wakaam soo demee dëkk yëpp pour ñu soo loolu du dara. Ah, bu boobaa rek ah, ñu ne lu duuf si nag bi du mun a xëj si cin bi ah, su ko defee rek askan bi dinaa leen wax na rek waxtaan ak moom. Ah, di jooy te incha allah dinañ leen indil yeneen waxtaan ak moom ah, dama koy bàyyi rek mu tàggatoo askan bi xam ngeen ne nag góor jàmbaar rek amul lii njittoo oh. ah, kool la ne la dama la bëgg a am si interview nga dalal ko si sa kër wax ko ne ñëwal maa ngi nii kon nag moom dawut te it poussé fen ñu ni duñ daw dinañ ko fekk ji fu mun a nekk jërëjëf voilà oh, tàggatoo askan bi ah man de ku ma invite ji dama dem as far mu ngi yoon ak si dëgga parce que lu ma dégga dalut suma xel bu boobaa ma bàyyi la nga tàggatoo dëgg la la alhamdulilah yow suñ jarbaat nga am na ñoo xam ne ci yéen léegi sax suñ sët ngeen mm-hmm. waaw dëgg dëgg léegi how old are you sa by the way before we go how old are you how old are you you tell me man journalist laa dama ñëw ku la teg question oh, man tam diplomate laa mm. Mm. diplomate dafa war a laa teg question moo tax ma ñëw journalist how old are you i am not old ah am ma benn age da la xam man maa ngi dama bëgg la ko wax after no I've changed my mind. ni nga sa ba. please just non léegi xaaral ma ko generation bi ñu achieve before your age. let them go to the archives and everything suma Facebook yee yëpp. dinañ Yeah, here is the archive that's why we have no I have to you know sometimes you have to Fuck my failure. you you want to do this I'll do it with you bu gis nii de yéenay su nit bu I can be very polite. Why? Politeness is not weakness, huh? no. I was born on January 10th, the best month of the year, the beginning of the year. 1980, dégg nga français non dama laa tooñ rek waxam ma tàggatoo you still need my aid. yeah. ok. c' était année 1960 à 10 janvier. This ah, ñi nga ñi nga xam ne ñi ah, janvier. déedéet bële ma xool. français ak anglais. anglais. on the 10th of January 1960 at about 5 p.m. my mother told me I came to this world at 75 Dobson Street and then being transferred to the Royal Victoria Teaching Hospital which one, my grandfather contributed with elders of Banyu to advise the colonialists to build a hospital after the war so that all people can benefit. Hospital boobu laa at Independence Drive maa ngi ñaan yàlla di ko santa lépp lu ma fi wax loo xam ne mistake la o dama des excited doomu aadama mutut ngeen baalal ma wax lu is from what I know du ma wax dara lu xamut all I'm trying to do is to share with the youth for posterity for the future because legacy outlives life na xale yi góor góorlu nañ takk seen digga ñu liggéey euh, wax du yóbbu réew réew xam-xam ak am-am moo ko yóbbu li ñu sëriñ bi jàngal mu ne indépendance ci ñaari pila la taxawee xam-xam ak am-am gërëm naa la gërëm Gambien yi ñu raxas xol yëpp ñu ñëw together ñu liggéey suñu réew time amut time mu ngee dem wax du dee développe réew action mooy développe réew ne dañu wàññi wax ñu gën a def action ba pare na xale yi jànga nañ def consultation so that they can compete around the world world bi léegi is globalized is one spot foo dem soo nekkee léegi technology la yow ñun lu ñoo def fii nit a nga toog Washington Seattle di lekk benn ci nam di ko enjoy here ci gàmmo bi ñu jógee nii Facebook live yéen yéen a ngi fa woon all night the whole world suma nit ñëpp contact nañ ma they were with us in the gàmmo all night loolu technology rek moo ko mun mhm. so man cheikh omar fay ñun na xalé yi gën ñoo perform ñun ñun liñ def xëy na lu tuti la man ma suma morom yi gambia amna record bu bari léegi generation bi nañ study from different gambians sons and daughters of the gambia ñu sét ñi fi def lu baax yu rafet let them land from it prepare to take over this country in another decade or so feka pare ngeen am ngeen xam-xam bi am ngeen mun-mun bi nek di yaxante di añanante di gorante yoyu dika bu ko def da nga backward te ñàkk bi dafaa yokku na nit ñi raxas seen xol yi ñu ubbi nañ jàngal xale yi ñu move di country forward ma gërëm Pa Ousmane gis naa effort bi moo def depuis ma nekkee ambassadeur daf ma daan contact am na yu bëri su xewee sax daf ma daan jokku am na yoo xam ne naa ci daan mun a wax a moom am na ci yoo xam ne du ci daan mun a wax a moom moom mun naa nekk sernde am na yu ma daan laaj yoo xam ne dama ko ne lii duma ma ci wax mu am yu ma laaj ma ubbil ko wax ko yëpp loolu mooy àddina Gambia maa ngoog seen dooma ngoog for the rest of li ma dese dinaa continuer to serve the country in anything to help suma ma paree ma sant suma borom dem naan suma ndox ma ne yàlla thanks for everything gërëm naa suma waajur yi gërëm naa friends families ak suma ñëpp ay merewuma kenn aw ma problème am anybody alhamdulilah in this world tey aw ma problème ak kenn maa ngi gërëm yàlla koo xam ne tooñ naala la te yëguma ko please maa ngi and make sure you fulfill the nga uh, uh, promise uh, parce que promise moom mooy nit maanaam nit sa kàddoom gor sa baatam bu boobaa nag yéen nga di bu di Gambian Talents TV ñi tax mu jóg Gambian Talents TV Euh, ñun duñ mun a def dara lu dul rek ku indi leen lépp loo xam ne rek ab waayankoo ngànka euh, lépp loo xam ne ab kooy dégga te it amul si lu ko leer euh, ak man Fatou Samba dinaa dugal fu ne génne leen si lu ne indi leen nag mu leer tey it toogum fi nag ku ŋaañ ak kenn dañ fi toog rek ku wax dëgga te dëgg rek a war a wóor dëgg rek a war a dem bu boobaa nag dëgg rek leen la naa indil su kanamee rek dinañ leen indil beneen interview ak ki nga xam ne nag moi ki la is mom nak moo ne ku bokk si gétt bi nan ci meew mi ah, lu bari bari dañ ko wara wax ku Gambia Gambia suñu xuté rek dëkk bi du dem waaw de suñu xuté rek dëkk bi du dem ah, si ko defee ñun ño wara wax ah, rawati na nak ñun ñi nga xamné ñoy e jitt ci wax ko nak ci yar ak a bu boba nak deka bi dina dem yeen ñi nga xamné yeen ay seetaan lu mu fi def ak Cheikh Omar fay di leen fal bu baaxa baax rek di leen ne ñun mënon dara lu dul li ine leen ay waxtaan waxtaan yo xamné nak dina dugg si bopp ko ah, génne foo xam ne nag dinañ ko dégg déggin bu wér ah, dinañ ko dégg si déggin boo xam ne ku ko dégg rek dina ah, moo tax it rek ñu indil leen ko yuut si den war a jàng kon nag ñun yuut si dañu war a jàng buñ ñëwee nag ñu fekk fi ab yaay bu baax a baax a baax kooku di suñu yaay anti Mariam mu waaw mu dalal ñu bu baax a baax ingram dalal ñu toppatoo ñu su ko defee ñu ne ñu ngi ko wax jërëjëf jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax a baax ne rek ngeen seetaan Gambian Talents TV su ko defee Lolo dina len jàppale euh, yéen it ngeen contribute ci suñu ay programme mën ngeen na subscribe ci suñu Facebook page bi ci 5 dollar every month 5 dollar every month dafa tax rek ñu indi len interview yu mel nii xam nga ne ba ci kiram euh, du yomba euh, fokk rek nga jël li nga xamne moy mooy mutu rek nga fay li nga xamne nak moy fuel sa moto bi ak yeneen ak yeneen internet bi Gambia is very costly xam naa ne yéen ñu baree bari di ngeen dee bëgg a xam lan moo xew si Gambia suñ leen ko indilutee nag ah, di ngeen te lu tax ñëwut ah, bu boobaa nag su nekkee suñ sago dinañ leen indil lépp loo xam ne rek ah, di ngeen ko mun a jot waaye soo leen gisee sam daal network bi di dog ba tey ngeen am ay ngeen foog ne neneen ak neneen la fekk demewut fa noonu internet bi la dafa seer bu boobaa rek yéen ñi nga xam ne yéen ay genuine Gambian si bugg a seetaan programmes yoo xam ne Gambia tax ngeen bugg koo gis Uh, contribute leen si Gambian Talents page bi by contributing five dollar every month ba tey it rek ngeen subscribe si suñu page bi ba tey it ngeen donate si PayPal bi five dollar su nekkee dafa tuutee yow ah dara gisi ñaaw mun nga contribute si page bi jërë ngeen jëf bu baax a baax ba beneen bés bu ay bye bye